عبد الرحمن الرحمن depuis daaw ba nii ñu ngi sunu bopp ak dicté yi ñu doon jël nga xam ni ci wàllu diine ñu for ko téye ñu toogandoo ko moom ba mu tax yàlla indiwaat ko sunu ki gi di def lii moom moomatu ko ñun ñoo ko moom ndax euh, lu baax ki la indi lu baax kooku defe naa moom jaanam wàcc na yow yaa si ñu koy sant nag mag la bu nga xamee ni dëgg neex yàlla man de bu ma ñëwee si koñ bi yàggul waaye man ni ma ko fekkee fii jar na di woote lii ndax ci wàllu diine la nekk jàkk ja kër yii du suba jotee dina dugg ci kër gu nekk muy def lii may wax nag du sama kàddu kàddu waa koñ bi yëpp laa waxal ndax kër yëpp lay dugg ku mu gis ñaar ñi am na lu fexew dina dox tànk boobu boo xam ne kenn du yëg dem mottali loolu kon yéen ñi nga xam ni yéen a nekkandoog moom war na leen wax suñu kontaan si moom ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fan yàlla bàyyi sa kanamu njabootam ndax koñ bi mën naa ni la am na beneen mbir bu nga xam ni sécurité koñ bi sax daf ko yor sécurité bi sax daf ko yor xam naa ni fii moom am na yenn kàccoor euh, yu nga xam ne du mu traversé kon yàlla na ko yàlla fay yàlla bu dee yéen ñi nga xam ne itam yéen a déplacé ñëw ba fii ñun dañ ci am kontaan rek ndax li xewal da leen ñëw indi ben xewal bu nga xamni dañ ci kontaan ndax mu wajur ni ma sha allah ha ah Cheikh Tidiane Ndiaye ñang wa ñun de bokk nañu fi groupe bi ndax man daaw bi ma toogoon macha allah dama kontaan ndax waxtan bu neex kon yalla na yalla jàppale léegi nak ñun dañuy joxo ban mu wax ci après ñu waxtan bi defe naa ممكن ممكن نعيش الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل ولم يرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخ تيجان الشريف وما لنا إليه وسيلك يدخل من أيها الحاضرون والحاضرات نحييكم بتحية إسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ginnaaw bi ñu nuyoowe di dalal gan seen biir kër ñoom la leen di dalal ñu wax ni nanu santaat yàlla bi mu nu may ñu fekkaat gis bu mel nii dëgg la xat-xat jamono waaye daf fekk ni ci lu mu xat-xat xaram na ci wàll su ma téyee micro di wax fii wareef la ndax fii laay jàngee am fi am fi bac am fi licence ba master te dëkkuma moom moo yar yër ma yor ma moom Sadio Diallo ana bi may ñàkk bañ def bac moo ma yeb otoom ba Dakar defaral ma carte d'identité yàlla nee na séeréer yi bu leen ko nëbb ay borom xam-xam ñoo fi toog jar nañu ubbee waaye teewul tamit suñu imaam dafa toog yaram bi xaw a sukkante imaam Jaw te yàlla teral na leen ba pare ndax yarfa illahu zina amun minkum wala zina wut ilma darajat te moom mooy waatu mbir mi abwaabiha kon ba tabarakallahu dañuy dégloo jox ko kàddu gi moom mi nga xam fi yàlla teg mu ubbi ñaanal nu ci kattan yàlla ñu continuer waxtaan bi mbooloo la ci gën nag mooy bu ñu dee waxtaan nga jëriñu fete su baax na tëb baax na waaye jëriñu moo ci kon bu ko defee fa tabarakallahu imaam Jaw الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Mevlana Resulullah ve radıyallahu anh ashabi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ve sebine lehum bi ihsan ila yevmiddin. Mbokk yi ah nit bu nekkee adjoint ci nit rek mel ni moom ci boppam adjoint gouverneur gouverneur waaye sëñ Kumba bëggoon na teew fii Ibrahima Kane mboolem imam yi bëggoon nañ teew fii ndax day wax ne nit bu jëlee léppam jox la ko soo ko mën da jox sa lépp itam jox ko sa kenn wàll te jarul may guddal mbooloom yëpp ak quartier bi yëpp ñaar lañ xam ci Sadio mooy mu ngi teewoo mbiri jullit te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne képp koo xam ne ñu ittewoo mbiri jullit yi bokkoo ci ñun ñaareel ba it xam nañ ne kenn ku nekk am na teggin ak yow muy mag ak ndaw muy góor ak jigéen aussi kenn ku nekk jox na la gëdd ba tax na bu xewlee luñ sonn sonn il faut ñu daal di teew kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla yokk aw fanam yokk njëriñam te yàlla kattanal ko zaahira bas na def ci moom nag ak njabootam ak ñëpp ñoo xam ne xamante na ak ñoom ndax ci yittewoo lislaam bokk na ci tafsir bii ma doon def ci jumaa ji ak hadis may def ci jumaa weeru koor bu nekk dana ko jël partagé ko ñoo xam ne ñu ko Mauritanie ak ñu nekk bitim réew ci téléphone am te loolu itte la waxuma nag jumaa ji bu nekkee cinquante pour cent moom mooy ko moo ko yóbbu ci organisem ci itteem ci ak ñi nga xam ne ànd nañu moom dooleel kon lii rek lañ ci doon sànni di ñaan yàlla ngoon gi ngeen ko jox yeeyoo na ay bëccëg moom bi ba ngoon gi luñ tële tële dina ñëw daal di teew kon ah duma dama ñëwoon rek pour ndokkeel ko mu ne ma il fo nga sànni ci ay kàddu loolu rek moo tax ma sànni ci ay kàddu waaye bëgguma woon a dagg ñii di tag tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ñi baax dama sama benn shérif ne ko yow nattu ko lañ mu ne ma ah nekkee nattu ko ma ne ko yow xafin nga sa ci xaala jóge muy xafin nga sëtu yonent bi mu ne ah ma ne ko man xabib la te xabib am na cër ci yonent xafis tam am na cër cër mu ne ma wax nga dëgg kon ay nattu wala kon Sadio Habib la te ñëpp xam ne ne Habib la ndax wali bi gën a fort ci wali yi mooy wali boo xam ne dafa xam ne wali la wala mu waaye nit ñi xamuñ ne wali la waaye ki réeree ne moom wali la te wali yàlla yëpp xam ne wali la foofu mu gën a fort kon. Euh, wax lu mu bari bari bari bari ci doomu adama bi ak melo lu mu bari bari ci doomu adama bi moo baax rek man nag li may wax mooy jullit la muslim la mu'min la muhsin la kon ñu koy lokkale ci bésam bi dégg nga nag ci làmmiñu imaam yi nga xam ne ñu ñëw te waroon a ñëw ah, bu ko defee rek ñu ngi jéggalu kàddu yooyu rek dañ ci doon sànni dégg nga fatiha jàng ayatul kursi jàng lixlaas jàng falaq jàng naas ndax situation bi nga xam ne moo wax ne bu ñaan ci kóolute lépp loo xam ne daf ko doon dam ko kon ñu def loolu doomu aadama yëpp boole ci seen yi waaw jàng fatiha ayatul kursi ixlaas balaa ixlaas Sidaaj Baay gi ne na yii ku ci ñaan borom bi ci yëqiin yàlla dinaa la nangul te naa la jox sa càkk coono bu ko defee sëriñ bi pare nga tëj ko pare ngeen jéggal ma rek ma yee bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تقوم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاصب إذا وقب بسم الله الرحمن الرحيم كل أمرت برب الناس ملك الناس إله الناس من اللهم صل على سيدنا محمد والهادي إلى صراطك المستقيم على آل قدر وقدره العظيم إليك أنت العالم الحاكم الشكوى وأنت الذي تدري سرائر ونجوى سألتك بالكتب التي منك أنزلت وبالمرسلين المنقذين من البلوى وبالعلماء العاملين بعلمهم بالأولياء السالمين من الدعوة وبالبيت والمسعى والزمزم والصفا وبالحرمين العاملين من الأسوار وبالمسجد الأقصى وبالجبل الذي تحيط عليه السيئات كما يرى تقيد لنا رزقا حلالا بلا عنا وترزقنا علم الشريف مع تقوى وتحفظنا من شر خلقك والزنا ومن شر شيطان ونفس وما تقوى وتقبضنا عند الممات مسلما وتدخلنا يا ربنا جنة المأوى وصل على المختار ما حبت السبا وما هام مستحق إلى نهله ألوى إذا الآل والأصحاب ما لاح كوكب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 阿妈，阿妈。 Assalamualaikum wa Assalamualaikum wabikin ngi len di nuyu di len ziar di yëkëti ay kaddu yu gatt kaddu yi nak du sama kaddu kaddu Amadou Sadio Diallo la damay wax ni Cheikh Diop jërë jëf. daayira Cheikh Saad bu bi doon jàng ubbi daayira rek léegi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci turu El Hadji Sadio Diallo ñoom ñooy sëñ Cheikh ñooy daayira bi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi dañ ni woon daañu barkeelu ngir teertoo ko dañ ko bëggoon fanaane sax waaye lu neex lu doy moo tax ñu gàttal ba beneen yoon rek incha allahu rabbi nga defal leen ñaan seen daayira bi egg ca kaw ca kanam ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah dañu dellu wax alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin yàlla may yàlla mi nga xam ne moo ñu mayal ñu fekkee may ñaanaan ko mu mayal ñu fekkee kon yal nañu yàlla may ñu fekke waat ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah tey jii mbir mi dafa mel dafa li ñuy wax li sëñ bi daan wax dafa ala daw me ndax bu njëkk dañ ko daan dugal ci roq bi tey ñu ci ci mbedd mu mag mi ah. bëgg ngi gën di law ba ëpp lii incha allahu rabbi yàlla nañu yàlla may fekkee ak tal dara ji yam ci sallallahu alayhi ah, wax ni programme bi dañ koy gàttal rek ndax dañu bëgg ñu jox léegi bu ñu paree ñu jox Cheikh Ahmed Tidiane Diallo mu jàng alxuraan su ko defee su paree ñu jox Serigne Birama Diop mu wax ci turu quartier bi ah su paree nag ñu jox sëñ Assane moo dugal sëñ bi ak ñu mu àndal ñu daal di tàmbali waxtaan yi bu ko defee rek bu waxtaanee ba ci kanam ñu daal di gàttal am ay ko ci am ay question yi nga xam ne danga koy laaj ñu laaj ko ah bu une jotee bu ko defee rek ñu daal di mën a ñaan ah ñii dem ca gàmmu ga dem ah ba demoon ci jàmm ci loolu lañ ko tëralee. ah yàlla nañu yàlla may ñu eggale ko si jàmm ah sëñ Cheikh ñu ngi lay gërëm bu baax a baax daanaka ñi nga àndal fii rek mënoon nañu def waxtaan wi ndax xam ci ñoom xam-xam boo def ci ñoom te kenn ci ñoom rek ku ci nekk mën nga eh, taxawee bis bi waaye nag ñoom ñëpp ñoo ak yow sa ah dañuy def lu mooy sant yàlla bu baax baax. di ñaan yàlla yàlla yàggal sa taxawaay yàlla yokk xam-xam bi si daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah waa yëpp nag ci turu Sadio Diallo kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax amuñu sa fay yaa ñu ngi àndal yàlla na suñu borom fay la yàlla na suñu borom fay la na yàlla dëgëral sa taxawaay yàlla na yàlla yokk xam-xam bi saawaan baawaan ci àdduna bi yëpp macha allah ah, ndax li nga xam ne. mënoon nga tok ben place rek tey ko sa bop waye dang ko tassare jam ñëpp ci si jariñu wax deug yalla niko Cheikh waxe fi non la ñi ci jariñu won daaw amna na ñu si jariñu ren ah man de jariñu won na ci daawati daawati daawati jéem ay ma ngi ci jariñu ba leg incha allahu rabbi yalla na yàlla dëgëral sa taxaway kon ñu gattal fi te jox pap Cheikh Diallo mu ñew jang alquran ah انا بعرفش احكم waaw su pa su Pape Cheikh Diallo pare daañu koy daañu ci toppale Abdoul Aziz Diouf mu jàng ci moom it benn aaya alquran incha allahu rabbi bismillah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 يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله soxla si El Hadji Sadio Diallo ah, yal na xam-xam bi yokku ci daraje yonent bi sallallahu alayhi wa bismillah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 أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة Sadaqallahul azim. jërëjëf Abdul Aziz yàlla na dong doon sa turandoo ah kii El Hadji Sadio Diallo la xaritam bu dëggu la nag moo mu ci bis bi ah mënul woon mu fi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 di ñaan yàlla suñu jotaay bi yàlla bu mu nekk suñu mujj jotaay di ñaan yàlla mu may mu déwén ak jàmm yàlla nañ ko fekk alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax di ziar sëriñ ñam di ko jox wàccuwaay di ñaan yàlla mu nga xam ni ku ko liggéeyal mu fay la bu ëllëgee la mu lay fay ci lu baax yàlla nga mu ci sët ndax fa tabaarakallaahu fekk nañu waxtaanu daaw wa jël nañ ci leçon yu am solo ba nga noppee sa waa ji sërxal nañu ay kàddu ñu sëñ njóglaa ñu koy suivre nag boobu ba léegi ñu ngi koy xool ci tiktok bi ñu ngi koy xool ci wa tabarakallah loo joxe rek bind nañ ko denc na yàlla fay la yiw jigéen nga xam ne ñoo dëkk ci quartier bi nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jéggalu nag ci li ñu jële ñii ca gannaaw indi waaye danaa ñu ko am gan te nag ñuy dañoo jóge ba Ndakaaru ñëw ngir yàlla ak suñu gis bi kon lu ñu mën ci taranga ñoom yeyoo nañ ko moo waral ñu indi ñu toog fii ñoom ñu xam ne ñun yëg nañ leen safoon nañ leen faale nañ leen ndax seen ñëw gi am na lu mu def ci ñun yal na yàlla guddal seen fan seen mbooloo mi yàlla bu ci seytaane am cër Sadio nag alhamdulilahi rabbil alamin boo gisee ma ne Sadio alhamdulilahi rabbil tollu woon nag ay jamono yoo xam suba suñu yeewoo yaakaar bu joxee état dañu saal saay wa ci tar tar mu metti loolu man ñi bokk naa ci ñi sant waaye ku fay li ku fa ba am sa dama ko defar pare yaay yaa ngi ma xool ba yàgg ne ma bilaa sama doom bi ndax dana jóg ma ne ko ñaanal ko ndax dama fekk ku dara nekkul mu def fa daal kër yaayam ji yaayam dong nga fi nekkoon te ji del gannaaw yàlla maa ko duñ wéttali saa di ñëw jàngat situation kër gi xam ni kër gi doy na wax mu mën kaa mu ñàkk jom mu jot ak mu ñàkk jot yëpp mu dem takk soxna yi ñu wétali yaayam fa tabarakallahu ba keneen fu ñëw da nga ko fa fekk kon lu mu am jomb ko ku bayam bàyyam la Sadio ku fonkoon bàyyam bàyyi nit nek magu taaliba ya. cheikh bo xamne ne ci mom tëjëg gi ci mom billahi wallahi gëj naa ko gis ci xolal mag moo xam am na quatre-vingt-quatorze ans waaye bañ dugg cent sax waaye bu ngeen mosaan bokk ñam toog billaahi moo lay gën du laa ndaal fa mu sëgg fa la sëgg loxoom bi ci bool bi la ko teg te lu mu loo lekk mu xeet suñu jumaa jee moo fa daan dëkk moo fa daan mujj bu ñu àndal moo tax it keroog ba ko yàlla génnee àddina fay nañ ko borom xaw ma Ousmane xaw ma Alioune laa séentu muy doomu bàyyam bari li may wax moom mën na kaa seet ndax ñoom xam nañ seen bàyyi te daaw it gis naa ko fi kon rafet na ki nga bokkal bàyyi <coughs> daan ka ñu bokk ndee bàyyi sax te heure bu programme ñëwee loo jàppoon nga bàyyi te ñëw ci yaa ngi koy sagal yaa ngi sagal sa yal na seen ànd yàgg te yal na yàlla lafal leen cat te ngeen suuf seen way jur wa fan waa ba Sénégal gàcce ngaalama yi ndax nag xewu diina bari na fi buñ ko doon wëññi duñ fi dugg mais jàpp naa ni bokk na ci gën tegu yoon wax dañ fi jàng di fi jàngale au passage maa ngi nuyu oustaz Mame Balla bokk na ci suñu yor daara fii di fi jàngale yàlla yóbbu ko ci réewu arab yi nag mu jàng ba mokkal ñëw te rek ñëwee jox ma loxo laata ni Diop maa lay dëkk conférence fii ci ba Sénégal mu ñëw def ko loo xam ne dañu waar ndax bëgg ko gis te xamuñu woon ci lu mu ne waaye nag doom yu mbëri jàngit bëri gis naa ñam bàyyam daara la yoroon te bàyyi ak imaam la la woon kon nii rek la mën a demee yal na yàlla defal la cap te bàyyi la ak sa xam-xam alhamdulilah rabil alamin ñu ngi gërëm soxna Oumy Ndiaye jabar Faye ñoo ko ñoo nekkoon ak moom wa tabarakallah boobu ñu bis si kër gi xuloo fa xeeba fa xas fa mag kër gi dama jóge jumaa amagul di day jaay ma kër gi day jaay kër gi de Sadio Sadio rek laa fi ah am na kër guy kon nag sama wëlle rek moom bu ñu mën dañoo bokk ndey ak baay man ñoom dañoo mën bokk ndey ak kon Sadio bu defee lii. yomb ko te di waataat ci yàlla ni xam-xam bi Sadio indaale fii ci yéen lu ko na de waaye bi mu ñëwee yi mu indi secret yi mu indi ba fu mu daje ci mboroo ju ñu ko ñaanal ci yéen kon jotaay yi ngeen am mbooloo dëgg ngeen am mbooloo mu dëgg sunna ngeen am maa xam wa daal buñ ko toppee dañ fii fanaan te waxtaan wi mu ëppal soppi liy jóge ci yow ñu jariñu ci moom ëpp solo moo tax dañuy gàttal waxtaan wi rek di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewee ay déwén yu bare bëri képp ko sant bii jàngale joo indi woon yàlla na ko yàlla faj soxla soo indi woon yàlla na ko yàlla faj déplacement bi ngeen def jóge Dakar ñëw fii ubbee lii jeexale ci sëñ Babacar wallaay sëñ Babacar dañ lay fay salaamaaleykum wa

sëñ Bira jërëjëf ah wax nga fi kàddu yu am solo te li nga wax yépp mën nañ ko seede Sadio Diallo mii toog ku nekk mën nga wax ci moom te ku wax du bokk la sa moroom wax loolu lépp li ko waral mbaaxam a ko waaw ah, soxna Oumy ñu lay ziar bu ñuy wax Sadio yaa tax ñuy wax ndax bu Sadio ko axee yow la su amee doole yow la su mënee yow la kon soo meloon neneen ah waxuma Sadio dana mel neneen de waaye daañ ko gisee neneen kon yal yàlla dëgëral seen ànd. yàlla bu si seytaane dugg ah El Hadj Sadji Diallo nag nee na képp ku teew si suufu tànt gis na la mi ngi yónnee ngërëm ci ñëpp nee na lii moom mënu ko waaye yéen si jàpp moo tax mu egsi ba fii kon yal na yàlla fay mu ngi leen di ñaanal ku ci nekk li nga bëgg sa xol. yàlla na la ko yàlla defal ci darajay bis bi ah kontaan nañu bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp di ziar ñëpp léegi nag mi ngi guddi dañuy dellu jox kàddu gi rek sëñ Assane ah mu dalal sëñ Maguette ak sëñ Cheikh ñu tàmbali waxtaan wi su ko defee suñu waxtaanee ba ci kanam ah ñu. ku ci am ay laaj yoo xam ni da nga koy laaj sëñ bi mu ngi nii toog ndax bu dee ci wàllu diine mi ngi fi bu dee ci wàllu pajum aada mi ngi fi lépp lu ci waaj aajo rek te mu bëgg ci am lu ko leer na préparé question incha allahu rabbi bu ko defee nag. bu paree rek ñu daal di ñaan ah ñi mën a dem ci gàmmu ga jox ñu dem ci gàmmu ga incha allah rabbi bisimilah sëñ Assane incha allah rabbil alamin lépp dana ma danaa yendu ànd Ali Ali Imam kai wa ka tuta wa ka tuta wa ka ka ka kai Imam joxal ma ko micro ñaanal ko ñaanal أنا مع أقدر والله تعجبني جدا أن أتثبت أمام هذه أو هؤلاء يعني الأئمة يعني من رفع درجاتكم مع وجهكم النير يعني أنا أتشرف بكم ولحضوركم في هذه الوقعة وفي هذه الحي والله بك لا أعترف كي بما ليس الحمد لله في وجهي والله tey la ma ko yëgal boobu maa ngi génn dem jàngale ji alquran ma daal di dimanche rek laay jàngale léegi wala yow mokkal alquran yow téedaale mu génn bi ma ko waxee ma ne ko dimanche laa gën di génn sama bunt ba tey laa génn ak yow laa njëkk a daje waaye moom dafa am cër yu bari ci ma man ci loxo way juróom laa juddoo tukki naa dem ba am sama jege fanweeri at ba bu ñu takk soxna su ma taal ci loxo yaay mi giddi looy ginaar mu yaay dooy ginaar loolu muy cër boobu am naa ko ci gën l'an 2000 bi ma ñibbisee Sénégal ñu jaay ñi laa njëkk jàngal ci quartier bi ci jigéen daara jigéen mus fi am waaw nga taxaw l'an 2000 bu ngeen dalee kii ba ñetti boto daw 2 mètres gis xale bu ma jàngalu ko boobaa man ma gis ma kilifi gi waaye nag tabaar bi ñoom ñoo ci jàpp vraiment mu yëgee lu mel ni ak xarab yu tedd yi ma gis xam-xam bu leer bi fi génn ndax arab nag day wax ni isa jaa dayfu fa jaa li dayfi dayfan fa awdi bi ma tuqri duyuufu dayaafin dayfu gan la waaye gan bu amaatee gan man nag ganu gan la boobu arab dayfan la fi jamu dayaafin kooku nag soriwu ci loxo waaye yéen xam naa ne loolu dëgg rek yéen ko defee nag comme ganu gan la sama mag Baye Birahima bi tabaaraka jàmbaare ci biir bi maa jëlee bu taxawee bu ma waxee ñu bare daanu ma premier lettre yi njëkk bi mu jëm ci mboolem ambassadeur a bi maa ko bind sama loxo bi plan bi njëkk a defar Mauritanie na ma fes maa ko dugal ci ambassade Mauritanie keesu téere alquran yan daan jële foofu man maa ko doon def ci centre de dugal ko ba Sénégal te musuma ko ma kon fu mu taxaw bu waxee rek war naa wax ci quartier bi man sama baay mi fi ñëw 1950 te yaakaar naa ni balaa nit di fàttaliku waajur ñu ci quartier 50 bariwul 50 ak 60 ci la toppal daara ji 45 fekk na ko ci jumaa Seydi Hadj Ba mu ko daan ji Seydi Hadj Ba da ko jullee Chérif Tay yëpp moo ko dama naan Sénégal ah xëy na waaw waaye ndax bi kenn amul ci photo Chérif Tay pour ma damaa ko jëlee ak a website xayla di search na tey boobu moo doon qualification bu Tijaan ci Sénégal boo daan may sax bourse yeeg yu demee noonu boobu pour bay jox ko waaye bi mu ne bopp am na fi ay kii ñu la doxal daara ji fi 1960 ñu fen duñ judd fi gannaaw waaye nag dafa mu mu tere nit mën na dëkk ba Sénégal dégg Mouhamadul Habib mosuma tudd man Balla na ñëpp ñu bare moom naa xam man Mouhamadul Habib laa tudd balaa Ablaye Ndiaye ba léegi moom xam na ko parce que waaye fas bi rek naqari bon dëgg yàlla nëbboon na ndax xam-xam dinañ ko xamee jàngal jàngal te lii tey bu ko fi fekkoon moo koy jiite ndax lan maanaam xaalis maanaam moom mooy sama yaram bu yëngutu ci jataay bu xam-xam te mus ko may nit nag balaa nit ñi xaritam naa Cheikh Mouhamadou Moukhtar du xam-xam kenn ñu mu ko bu ko defee ah xëy na dafa mel ne yoon boobu lañ tàmbali léegi. waaye taal yi ñun ñoo ngi bëri ndax ba mu jugee Dakar ñëw ba itam xam naa ko ñi ma njëkk a woo ci wóolu ci confiance man ci miracle bu may def dama naan si te moom xamul woon ci kër yu bari yow kër danaa daa lépp dërëm du manqué moom li muy mën mën calcul ci ci machine suma calcul mental ko gën a kër dana calcul ma vingt cinq mille dollars ma fekk mais moom wóolu ko ci trop te moom xamul loolu ci moom. ah xëy na nag peut loolu la tax miraas yu kenn mënu ma si ndax gërëmu jàmm kenn du ko lekk sama kàddu mais mais ku wóor ngi ni ku dëggoo ngi ni ku sell ngi ni ku bëgg lu baax a ngi yan saa yi daf may daje ci kaw ndax su ma génn bëreetul léegi mu fukki at kenn gisatu ma ci tànk ñu bëccëg ñu guddi ma yëg ma ko kenn ndax daal di seq daara wala nga dem man loolu lay dundee dos léegi jël naa pompa bi téere bi wala nga dem dimanche ba dimanche lay dem wala samedi ba samedi sinon voyagé wallahi la xam te bi ma génnee léegi ak li mu metti metti ci suñu wax ma ko man toog ma ko dinaa ma dem mbokkoo mi xaali mu moom kii Birama xam na ko ne ko nag fa leen ci armée Sénégal kër mag sama daara ji ñu tax fekk ñu maye doom boo xam ne maa ko jàng même rakk kooku ñu ngi ca daara ji mais mun ba dañ la ko doon di distribué yaa koy maye nekk ni beneen ci woon gën naa yem àll trois heures laa na wàcc te timis laa def ku ne xam na ne Alassane Diop ma ne magu Titi tey la anniversaire bi te génn àdduna maa waroon wàcc gaal mi suba ba may dem it fàttali fi nga xaar bu ma génn sama doom jàng si moom ba ma dem ba fa ñu ñu leen mën wàcc gaal moom mënu maa ñëw tënk nañu yii yëpp dajoo sama ko ba ma ñëwee ba tey dama bëgg ma noonu kon vraiment ñi ñëw jóge Dakar ànd ak sang bu tedd bi ñu ngi leen di ñu ngi ñu leen di bëgg ci wax wala waaye cër ñoom doon na teraanga ci ñun ndax yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ida arada allahu bimri in xayra saxara ilayhi dayf ngir yàlla bu la nammalee teraanga yàlla nañ ko dégg nag nee na bu tàggatee gan bu yiw rek pare boo ko yàqul teraanga bi ñu waaye boo ko yàqee soo yàlla nañ ko dégg noonu dañ ci yàlla na yàlla sàmm leen dëgëral seen taxawaay yokk seen man xidmatul islam wal muslimin lii suñu Birame wax de ah san su moom mbokk jóob ma waaw góor ndax waaye que së suñ kokki ñoom së suñ maam Moxtaar man leen nag suñ kokki léegi bari nay sët waaye xëy na sëtu ordinaire yi la te suñu sa jéy maam Moxtaar Numbe si jaaba xarimaam jaaba xarimaam jukk mu ah, Balla Fat Balla jur Mouhamadul Habib moo jur ñun ñoo moom kooku ñoo ko sañ waaye sama maam waxtaan noo ba kat ceeb bi dàqee ba tas njaboot ñu ne nan la ko bàyyi li mu mën a indiloon ak waaye cent pour kër yàlla la kon tabaarakallah mënu wëcc ci foofu boo nekk ci dugg man nga yàlla natt na loolu sama kër ñaari rek du ma seetaan télé du ma seetaan tiktok aw ma Facebook wu ma ko la ma soxlaa mooy ëllëgi njaboot ak ñoom ñu teel a mokkal alxuraan génne loolu sans problème dama wax ni jàkk yi jumaa moom mii soo bàyyi ma ubbi jumaa jeeree muy wax kenn dafa ko ci xam-xam la du ma ni xam-xam xalaat sharia ak xaqiqa salli ala Muhammad dal na doon ci mu mu ko ubbee maa ne am na ñu jàng si waaye ñu def si tànn ba da ngay ne ko duggul ñu laal ko amul tax ma ne ko njaboot gi su ma demee ci jàkkee jumaa yi ki leen di jàngal def ci man lan def ci man parce que boor laay fay waaw alhamdulilah rabbil tey ki ma ci njëkk a tàmbali ma nga moral bi jàng kon yàlla taxawaay boobu moo tax mu wuute tey moom nii Sadio wallahi naa dem même yéene la am ci jumaa ji man maa dër rek la mais loolu jumaa ji quartier bi yëg naa waaw dañ ne euh, këll la eh, law moom buy gor matt ah teg këll ga muy naan ndox ba nga yaakaar da nga ko da ko fàtte bis boo jaaree di ko sàcc bu la tëggi nuur waaw su ko defee moom nag këll xam leen noonu sax am naa relation ñun nga laal ah yal na yàlla yokk te xam naa ma ñëw dañu naa benn yéene si waaye su ma xasee tëj dimanche trois heures samedi yàlla yokk maqaama yi ñu ngi du baax jëm ji ah sëñ Xasan vraiment ah forcé nga ma rek ah forcé nga ma rek waaye nag buñ ci kii sama yaayu kër yi daf tax ñu yegg ñoom waa Sénégal benn bopp sumay tànta la ñuy suma yaay te ñoom ñu dëkk yi ñëpp yaa nga la fen dom na wax dëgg yàlla aw ma ci kenn ak xar ma yàlla vraiment xorma la may rombe ak ma laa ñu rombe ñu si nuyoo bu tere yal na yàlla fa leen set yàlla taw ci xol yi iman coow li coow li sang yi li tax ñu ñëw mooy iman nekk ci xol yi sama bàyyi daan na wax naa ma fen bu tas ci dëkk nag ci làmmiñu mag la génn mag ñi ñooy yàqu yóbbaale xale yi moment bii taxawaay la laaj ci mag ñi caaxaan bari na ci dëkk bi ci wax ci jëf dafay sang yi bu ñu ñëwee ñun lii seen sàkk ñoom ci ñun mooy bu ñu dellu si ëllëg gis ñu di koy changé te adduna bi lépp a gaaw tey dama ragal na ku gaawantuwul li ngay njëkk a perte mooy sa njaboot ku lim na alxaasirina alladina xasiru anfusum wa ahli lool loolu ñu ngi bëgg a dal kon yal yàlla taw ci xol yi iman ci barke sang yi tëdd yi sa def ak alu bay torop nga xam ni gis leen doy na teraanga yàlla na fekk na nga xam loolu gëm ko boo ko doyloo ah wala fay dana wax ni ku nawloo sa xànc xam ngeen xànc mooy la ñenn ñee ko xam jiiñ xamul dara ku nawloo sa xànc ñi da nekk ci àll bi di góor dara tu garab yoy bu njëkkoon buum amul bo takke mat yan say ndax dag ben benn bu def ay 30 ans mo dal waye bu gasaan da ngay jël amaat benn bi ko taxaloon bu yagge di nga am xaaj bu gud da am buum bo xam daa ko mëna takke saw say bo bo demé kër ga dana jafal ba jafalaale leen ku nawloo sax xañ mu takkala saw say alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jigéen ñi ñu ne. da ngeen leen fekk. waaw dañoo bëgg a gis. waaw dañoo bëgg a gis. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaara. di nuyu waa Kër Sadio. jallo mi yalla jaaral ci mom sabab bi waral li ñu diko ñaanal yalla comme ni ko mbokk yi ñaané yalla may ko fan wu gudd ak wér-gu yaram loxo njabot ci mu yag ko def nuyu Cheikh Ahmed Tidiane ñaan di sunu kilifa ca Daara Fàccal ba ca building communal ca Dakar mu jiite délégation bi yëpp kii toog mooy sëñ Maguette Diop xam ngeen ko Kalidou Gaye nga ne defee parce que def naa li mu jël moo xaw a moo tax mënut toog Imaam Lamine Niang El Hadji Gueye ak ñi toog ñi ñëpp waa Daara Fàccal la. jigéen ñaa ngi nii toog lépp wëllërante ak jëmm ji ndax olof day wax ni bëgg yëg dong nga koy fay ki la bëgg def la ci xolom wallaay li nga ko war a delloo rek mooy lum la soxlaa rek la nga mën ak la nga mënul nga boole ko ndax mbokk yemul ci deret rek mbokk ñeent la te lu jar la ba ca jiitu nag mooy deret bi yàlla na mee sos nit da koo jële ci ndigal góor muy ndox moo tax ko faral di wax gars yi di rey nee naa leen jigéen ñi ëmbuñu góor ñu ñuy ëmb ndax li indi doom ci góor lay jóge yàlla toxal ko ci biiru jigéen mu denc ko fa neuf mois mu judd nekk nit kon sa première mbokk sa papa sa yaay ñooy sa premier mbokk te ñooy sa premier kilifa ndox loolu la yàlla dogal ci ñoom nga jaar ñëw ñoo lay gunge tamit ba nga mënal sa bopp ci waxin ma kenn mënulul sa bopp mais ñoo lay gunge ba nga yaakaar na yow mënal nga sa bopp kon gannaaw jaamu yàlla ñaari waajur soo bëggee tekki soo bëggee doon dara gannaaw yàlla ñaari waajur ñaareel ba di mbokk diine ndax koko may wax bu ne tepp aduna dañuy woy oustaz ñang wala oustaz ñang bi ñu tuddu noddu li xam jox ko tour kon bok nga ci société islam mu yow re savoir dan la ngay julit ñettelu mbokk ba di pass pass ñi fi tok ñepp day bok ñu ben tarixa mais loolu la yalla dogal ndax farata la ya yoo amanu taqullaha wabtaghu ilayhi lwasila lu wér la ragal leen yàlla te ngeen ut wasila bu ngeen mën a jokkalee ba ngeen agsi ci man ñi nekk tijaan ñi nekk murit ñi nekk xaarit ñi nekk laayeen loolu la yàlla dogal mooy ñetteelu mbokk bi ñeenteelu mbokk bi nag mooy li nu bokk muy réew mi bokk monde bi te ñeent mbokk yëpp bu ci nekk naa la ko laaj na nga fa taxee woon ndax fonkoon nga say waajur ndax diine ma la santoon muy nga jaamu ma ndax jaamu nga ko ba sa des mooy bokk pas-pas yi nga bokkaloon àdduna gi noo leen jàppe woon noo leen téye woon environnement bi mën a joxoon nga di fa dund noo ko respecté woon kon loolu bokk na ci li waral tey ñu teew fii ndax mbokk googu te ëllëg nag ñett rek lan lay laaj benn malaaka bi njëkk a mooy lim lay njëkk laaj mooy sa xalaat yow bi nga amoon ci nit ñi ban xalaat nga amoon ci nit ñi buñ ko vérifié mu baax boobu jàll keneen ñëw na la yéene bi nga amoon ci nit ñi su boobu jàllee keneen ñëw na la rek léegi nag li nga doon def ci nit ñi bu ñett yooyu jàllee rek nga sobe mooy ñetti fani bàmmeel moom la ñëpp di jooy yàlla ñu ko yàlla yombalal kon sa Sadio ñu ngi lay nuyu di la ziar di wax ne kontaan nañ ci ñëw bi kontaan nañ ci ganale bi saw déggee sànq man la sama gars yi bu ñu tëdd parce que xam naa ne ku tëdd di nga nelaw ndax liñ chargé liñ <laughs> chargé ku tëdd rek nelaw nga ciy teg moo taxoon ma ne bu kenn tëdd ndax ndara mel noonu nag dara nga mel noonu da lekk ba baax ñu dina ko forcé mujj gi yow yaa mujj gedd ngir mën a noppalu loolu ko xam ndar xam na loolu bu ñuy wax teraanga Sénégal ndara tax moo tax ba ma fa jegee nee naa leen moom li ma fekk fii laa njëkkee lekk tàndar ba ànd ak li mu tudd lan la ko boole lan keroog ñageen yaa sama wet xam naa ne après ñu dal sama bi am leneen lu raison yu bëri amul wax naa ko sax ñaareel ndar nga mañ a wàññi ne mën nga wax ne kilifa dine yëpp jàng si nan fii ci ndar may la yàlla may ndar jagleel ko ko ba ca gën a neex ña ngi nekk xale ni mooy bu ñuy wax jën bu ne wax ceebu jën lu tax ñu na bay hein parce que waa kay wa ndara ko fi dàq togg kon dara nga dara bok ñu sant bu baax soxna ci ni ngi ak yi reen neex na kontaan lan ci machallah da no ñëngu bi bunt yépp soxna umu jaay dalal ñu yaak say dekkando ubbi bunt yëpp am nañ accès fépp ñu ci benn bëtt mbir yaa ngi noonu yéen a ko moom ñu leen ci sant bu baax di ñaan lii nag mu yokk di ñaan tamit di sàkk ci yéen ngeen ñaanal ñu suñu kilifa gii ndax dañuy faral di wax ne sëñ bi wax na ko sànq bu ne diwu baax na nañ ko laaj ay mbokkam li fi sëñ bu tedd ba bële seede ci Sadio mii Ibrahima Diop oustaz bi toog fii seede ko ñun mënuñu ca wax lu ko ndax bi sëñ Abdou ñëwee di gane ji mbokk ya ñëwoo géwél bi ne da doon bëgg ne bu sëñ Abdou ñëwee nga tàggal ñu ko mu leen nag da ngeen may xottil trois ko waaw mu leen da jox cinquante mille ñu ne ko waaw defal ko lépp sëñ Abdou ñëw toog ñu ne ko géwél yaa ci tàgg ko bu jóg na ko maa Abdou yaa baax dem toog yaa ne ko waaye ba ngay fond yow tàggal ñu sëñ mu ne naan yaa baax mu leen dama leen di laaj nan moo raw bu yaa baax amul lu ko gën a féete kaw seen mbokk loolu la la ak yàlla yàlla na la boo ko defee dama doon sëñ Maguette Diop ndax damay faral di wax ne man bu kilifa gi toogee amul lu may wax damay taataan ndax asamaan su la yàlla dimbalee ba mu wàcc profité nga laal ko bala muy yéegaat amul jot yu mel nii rek laa mën a profité ci moom tax na bu ma bokkee moom jotaay dama bëgg sa yëkkati kàddu lii bu dul woon ak ñi ma mbokk yi sant du ma ko sa yëkkati kon sëñ Maguette ni mu ko waxee woon actualité jamono oustaz bi toogoon fii léegi wax na ko jamono ji lëmbee na. salfaañoo na yàqoogul na yàqoogul ndax ñi yar seen doom ñu ngi yar seen doom ba léegi waaye problème bi mooy li ngay defar sa kër génn mbedd mi yàqal la ko loolu lañu war a waxtaanee te bañ ko ragal ndax ku ne xam na lii problème du senegal ñëpp xam na ko donc nga dugg ci actualité danaa la ci may 30 minutes la. 30 minutes non baax na 30 minutes ce matin ñu jox kilifa gi mu waxtaan ku ci am question nga waajal ko soo ko laajee mu tontu la. bi moo doon kàddu yoo salaamaaleykum wa rahmatullah waaye damay wax benn yóbbante rek bu ñu wax léegi mu jëmale ko ci El Hadj Sadio Diallo El sa yaay ay sataba moo fi yónnee ay kàddu nee na ngi lay gërëm di la sant nee na moom war a ñëw teew fii téye micro waxal ko boppam waaye yàlla def ko te li mu bëgg wax ci yow lépp mënu ko wax kon nee na mi ngi lay gërëm di la sant nee na teg nga ko fa nga tegoon sa sa yaay ah mi ngi lay ñaanal yàgg sa soxna yal na yàlla may leen fan mu gudd ak wér ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi am sa ngërëmal yaay nga ndax mu ngi fàttaliku keroog bi attaque bu seleti bi amee mooy bi ñu reye woon douanier yi foofu ci frontière ba jamono yooyu tekkoon na que moom mu nekkoon fa mu nekkoon ci poste police ba ah ñu dégg ni douanier yi nekkoon yëpp rey nañ leen te moom it moom doyen yi ñoo ñoo dendoon ah ba mu génnee ñëw ci yaayam yaayam dafa ne ko ah, ah loolu macha allah mu koy fàttaliku. ko tamit ni ko Sadio bant yi ma am yëpp moom bokk na ci ñi ma gën a ràññee bokk na ci ñi ma gën a yaakaar ah. te loolu tamit ñun dañ koy seede ni ko ñëpp seede ndax moom mi toog man ak moom benn lañu lu ko wokk xuli kon moom yaayam jee la mu ci moom ëpp na lii sax waaye mi ngi koy ñaanal saa su nekk ah damay gàttal rek ndax temps bi dafa xaw a kii kon loolu la sa ay Aysatu doon wax ah seen Cheikh sànq ci saal bi dañu doon waxtaan te ñu amoon teewaay bu taxaw daal ñu doon waxtaan ba egg ci am question boo xam ne da ko doon laaj mbooloo ma fa teewoon leen wax ni ndax xam ngeen luy caf ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah kenn si ñun daal mënu ko woon tontu. faf gan yi ñëw nag ñu faf fa arrêté waxtaan bi kon dañu bëgg balaay ngay tàmbali waxtaan bi nga tojal ñu loolu incha allahu rabbi mbokku taalibe yi ñëpp ñu ngi ñu koy laaj jërëjëf. sama doom Maguette. non yow damay jóg nuyu la. non non jéem a jéem a jéem a toogaloo waaye Maguette toogaloo. yow damay yow yow sunu maman. aywa sama doom ji baax ji waaye aywa sama doom ji baax ji waaye. aywa tey suba rek laa lay waxtaanee. waaw maa la baax. tey suba rek laa lay waxtaanee. fii ma fii am ko motu dara. ñu ngi ma matal yow foo ko foo ko gis xam naa ma. barke Rasulullah dinaa la wax li ma Serigne Cheikh li ma li ma turandoo Serigne Cheikh waxoon. ma ne ko bu ma gisee Malick Diouf rek xam ne am naa tey ci suba rek lañ kontaan bi muy ñëw. bàyyi na ngeen dangaa baax waaye dangaa baax maa ngi kenn la yàlla jàpp maa ngi lay ñaanal bu baax a baax soo ma gisee soo ma gisul maa ngi lay ñaanal. parce que gis ngeen ni seen jotaay bi def nii jigéen ñi fii góor ñi fii barke yenante bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ëllëg yombal xiyaamatu akbar yal na ngeen def sàkk ci kanam xam nga lu ma gën neex yow demoo daayoo buuse woo man lépp la ma fekk fi ñoo fi nga dem te leen duñ ko yow si Cheikh Ndiaye nag mii rek xam ne yàllaa leen boole nit yow boo def nga def nga def itam fukk ci sa tradition damay wax tuuti ngi nuyu ñëpp di vraiment waru moon wax suñu yaay suñu wax nga comme président nekku fi euh, maa ngi gërëm waa Daara Fàcceel muy góor ñi ak jigéen ñi vraiment di kontaan bu baax ci déplacement bu rafet bi ngay def parce que Sadio Diallo bii wallahi luñ ko defal jar na moom wax naa ko léegi nee naa Sadio ku nekk da yaakaar ni yow la parce que li muy wax ak yow ak li muy wax ak keneen ça fait deux. wallaay wax def. boo doxee na nga yaakaar ni yow rek noonu la ko yàlla bindee muy nit ku baax di leen ñaanal yàlla gudd fan loolu te yar sa soxna su baax bii yàlla yàlla ko def seen i li ma si bëgg a dolli rek mooy kii kii muy xujja jàng depuis wal fajir ba léegi ndeysaan nday xarit sow yàlla ko yàlla yërëm ñoom ñaar ñoo ci desoon ci waa wal fajir tey moom fi nekk gis nga ko tey ak ay béykat dafa ne dama ko téléphone mu ne ma Sadio Diallo de même bu may ram damay dem gis nga ko mu nii loolu cofeel moo koy waral non loolu il ma wax ko parce que c'est très important parce que tey mooy suñu yaayu daara muy ku baax xoolal dafa xoolal tey bi mu jógee euh, ci Habib Seck yàggul mais dama ko ko wax mu ne kii bu may raam sax damay ñëw te gis nga ko nii ak ay benn bu ñëw ku baax ci ma ko téye ku yàlla yàlla poudre say fan dañ lay bégee xool nekk rek ci suñu xol lay sedd yàgg ñu baax ñii la xam nga leen euh, dama la dama ne waa war ko ji gis nga ñii tamit dañoo ñëw rek bëgg kii seen Cheikh dafa neex a bëgg. kii macha allah dafa ñu moom moo ñu formé ñun ñëpp moo ñu defar comme ni ko assan waxee. wala yow ni ko waxee nii macha allah seen Cheikh yàlla yàlla ko a say baax. yàlla yàlla wéral say Cheikh vraiment kontaan nañ ci yow. ñu lay bëggee fu ñu ne. vraiment. mun naa fi wax bu suma ci yow te duma doyal. parce que Serigne Touba barke bi ma yaakaar yaakaar bi yow Fallou yow Fallou Ngaye mii groupe bi bu fi nekkee ba léegi yaa tax. yaay seet bu feebar ñoom du daa feebar nañ ko seet. yaay seet ñaar ñu xuloo nga dem jubale leen. li ma wax Cheikh Niane ni nga xam ne nii feebar ko député war a fàtte ba nëgëm léegi mot fa nooy rek sa naan lépp lu baax ci groupe bu fi nekkee ba léegi yow mi yaa ko dox boobu yaa ko dox yaa taxaw ba mu ba mu sotti ba nii ba léegi. booba ñi mën a am sax ay xale doole ñu bàyyi bàggale bu ñu at ñu ànd rek mu rafet loolu Cheikh Tidiane nii lu mu guddi guddi su ko def Cheikh Tidiane dama laa jox suñu du ma moo ma yee te dara respecté ma man sama njëriñ moo ni ci yéen ma dara ngeen bëggal ma seen rek ngeen yaay fekk sama kër fekk sama kër mais gàmm sama gàmm mu dugal jël taal oto def ci essence bi lépp fekk ba sama kër man billaahi moo tax ma la sama daraam bi damay ñëw dama koy yàgg bëgg fay lii yéen xamal ngeen ko sax yàlla def la jàmm ñu ñëw ak jàmm egg jàmm ak salaam yàlla ñu ñibbeeg jàmm te bàyyi ñu jàmm waaye gis nga am baax rek am solo mm-hmm. ñun ñii nag ñun ñii nag fi daje ñi ñëpp ak ñi ñëw ñëwal Sadio ñu fi dëkk ndax ñu ñëpp man man seet seet naa ne ay nit ñu baax lañ ñëpp ñu baax lañ ñëpp ndax wolof yi dañuy dañuy wax naan morof mënta baax yëpp bokk nit ñi baax ñoo xaritoo ñu am leen ñoo am leen boo gënoon fii tuuti topp di subaanam subaanam ñu xale ni def ñu dul boobu lañu bëgg groupe boo gis ñu ànd rek ñu ngi baax bu ñu baaxee ñu nga baax ñu ne leen mel dañu danoo baax danoo baax dañuy waxtaan dañuy waxtaan suba man leen Sadio kii di wax jabar Sadio bu baax nga jën mii di wax baax bu jabar Sadio ma ne ko man xama jabaram parce que maa ngi doon ñëw ko Sadio waaye jabar ju bon cat lu góor la bu Sadio ñu mel ne yow da déplacé Dakar bu fii jabaram la jabaram la wóolu bu jabaram boloon du ko ñeme ndax bu doon bu ñëwee mu fas kanam mu xool ne mm-hmm. jëkkëram ji moo nu ko jëkk xam kon du ñu may déplacé Dakar mu fii góor goo xamante ne gii yaatal nga sa kër yaatal sa kanam di fa yóbbu gan da nga xam ne jabaram baax na man loolu laa bëgg yàlla sa borom yàlla sànni defal leen jàmm ngeen fekk lépp yàlla yokk woo sëfee teraanga ji ndax xëyantu bi alayhi salaam alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayyidina muhammad صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من سر النفس ومن شر حواء ومن شر جميل كيد الجن والإنس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد mbokki jullit yi طالبين taalibe نيو نيب تي زيار نيب képp koo xamante ne yaa ngi ci tànt bi rek ñu ngi lay bu baax li fi ñëpp wax rek doy na sëkk ci waxtaan leneen luñ ci dolli rek dañuy répété rek rek ñu def ndax Sadio moom li Assane wax yaa baax moom mënut a romb yaa baax leneen lu ci tegu caf lay doon waaye man moom lenn rek laa ko ciy dolli. muy allahumma ya allah ya sataru ustur lana bi sidrika jamili ya sataru na ko defal moom waaw ya ma dugal ma <laughs> ya, dugal la deng nga loolu rek lañ koy lañ koy ñaanal jigen ni tamit ñu ngi ni ziaro bax bu baax gis nañ seen taxawaay allah taxawaay bi njëkk na rafet na ni ngeen ko defé ni yalla na yalla may katan ak ngeen gën ko mëna a defar fi ngeen taxaw tamit seen borom kër yi wala seen goor yi ak kum ci mëna doon rek yalla na sunu borom gëna a kàttanal ba ngeen gën ko mëna def lu ngeen iya, ci man rek bu déwénee yàlla na ko sunu borom gëna gën a ful ndax adduwaaw mokkal ibaat loolu waxu yenente bi la neena ñaan moo yukku yaamu yàlla hmm? te ñaan moy ngannaay asilaaxul mu'min moy ngannaay julit di nuyu tamit góor ñi ñi nga xamante ne dañoo jóge daara xaccal ñëpp muy góor ak jigéen waaye tamit mag ak ndaw di gën a feddali sunu colère ak ñoom dama koy wax haute voix gis nga li sama maman di wax dafa yor sëñ Cheikh day nuyu paan ba mu fees mu jékki-jékki rek gis fa inde mais ñun duñu ay inde ñun ay baignoire lañ duñu puus duñu rabat dañ ñoo cimenté ñun ci waa daara Fajtal lañ bokk foo toll ma koy wax jànge daara Fajtal génn naan feneen laa jànge man saas la daara Fajtal nga jànge kon ñu ngi sant ñi nga xam ne ñoo ñu doon déglu ñëpp di apprécier li nga xamante ne moom lañ doon def ba ñu taxaw dans la monde entier fépp foo xamante ne taxaw nañ fa di fa wax rek suñu borom doomu ci sutura bu baax waaye grâce nag à Serigne Cheikh gis nga Sadio li mu am nii yéen benn élément bi rek ngeen gis moom su génneewu tey jii yii ñuy def nii yëpp ñun mënu nañ ko bañ def buñ ko joxoon micro bi fu mu toll nii fii ba 3 heures du matin. lu ko waay laaj dana ko tontu ci kàttanu yàlla lay doon te daf ci am loo xamante ne du nekk ci dënnam mais bi nga ko ko laajee lu ko suñu borom di sànda sëriñ Cheikh noonu lay jàngale aman boo xam naa ci dara ma daara xam nañ ci lu bari ëttu sallallahu ala muhammad ëttu kéemtaanu jinne yi daaray sallallahu ala muhammad bii nga gis nii moo mu jur doom la ci ëttu kéemtaanu jinne yi mooy doomu daara feccal ëpp sallallahu ala muhammad mooy sëtu daa rafet daal kon Sadio ñu ngi lay dolli gërëm bu baax Serigne tamit dama bëgg ñun ñëpp kenn ku ci nekk ngir jëmm yàlla ak yeneen bi nag koo xam ne yenn muhammad mu ngi ci sa biiru xol bi laa wax xaw ma nag kum ci nekk ku yeneen yàlla muhammad nekk ci sa biiru xol bi na nga fas yéene bis ni ko tey raxas sa xol bi lépp lu ci loo xamante ne loo jàppal nit la mu nekk safaan lu mu mën a doon nga faxas ko ndax wóorul ndax guddi tey gi sax dina la fekk ci Dakar waaw boo ko deewaalee ci diggante bi looy wax yàlla hmm? yow doo xam ne wax yàlla li nga jaamoon yàlla yëpp nga fert ko ci zéro dal sa xol nga raxas ko ndax yawma laa yanfa'u maalun wala banuun illaa man ataa Allaha bi qalbin saliim jikko yi su baaxee dëkk bi dafay baax lu am solo la dinañ ci dikk léegi ñu jàng benn faatixatul kitaab salaatu bu waay mën na nga jàng ko d'abord ñetti per ñaanal yàlla Sadio Diallo ak ñii nga xamante ne ñooy waa bërëb bi muy waa Ndar ñëpp ak mbokkam yi fi nekk yëpp suñu borom def ci ñoom leeru barke dolli tamit leeru barke jàngaat encore ñetti salaatu ala nabi defal ko Serigne Cheikh mii moom ak njabootam gi fi àndal ñëw yëpp suñu borom dolli ci ñoom leeru barke defaat ñetti salaatu ala nabi xanaa kon juróom-ñeent lay doon te juróom-ñeent ci la lépp lu commencé fale mate ñu defaat ko àddiyee ñëpp nag ñaan yàlla suñu kilifa gii di Serigne Cheikh bu déwénee yàlla ko suñu borom may lépp loo xamante ne aajo buñ fi indi la aajo bu góor am na aajo bu jigéen am na aajo bu mag am na aajo bu ndaw am na yal na suñu borom def tawfeex zahira taboon baati na tam ñun loolu rek la ñuy sàkk man sàkkuma xaalis sàkkuma alal sàkkuma dara ma bëgg sëriñ Cheikh rek ndax xam naa ne bëgg gi may gën a bëgg sëriñ Cheikh damay gën a yëg ne maa ngi gën a bëgg yeneen bi loolu sama kàddu la yàgg naa ko wax dëgg la kon auzu billahi samil alim min ashaytan rajim bismillahi rahmani rahim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 صلى الله على محمد صلى الله على محمد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أولئك رفيعا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أولئك رفيعا اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء أولئك رفيعا غير المغضوب عليهم ولا الدالين ولا تجعلنا في ظلمة الظالمين ولا الدالين آمين صل وسلم وتبارك سرمدا على نبينا وحبيبنا وسيلتنا وسفيعنا وسراجنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله kon tey waxtaan bi dañ koy teg ci comportement humain raison pour laquelle sunu borom mu ne wala nab lu war na ko bi shay question la mais kooku Serigne Cheikh dina ci ñëw ci kanam tuuti dina ñëw tamit ci li ñuy wax ñam yenent bi mu neex ndax normalement nit ki ni ngay ñeme ceebu jën xam ne lii ceebu jën la nga ñam maafe xam ne lii maafe la comme ni ñu lekkee ceeb bu xonq bi leen mu leen sànq mu leen lii ceeb bu xonq la ñu jox ñu boisson ñu naan ñu xam ne lii boisson la ñu dox ñu naan ñu xam ne lii ndox la ñu jox ñu ataaya ñu naan ñu xam ne lii ataaya la képp ku xàmmewul loolu càq yerant bi ci sa bopp yow amagoo xamagoo dara ci yerant bi nit li may wax ni dafa leer nit yàlla yëpp xam nañ lan mooy càq yerant bi dañ ko ne comme nu ñu xam xàmmee guddee bëccëg nu ñu xam xàmmee cere ak soow nu ñu xam leen rek leen ak leen kon loolu sëñ Cheikh dina ci ñëw dinañ ci ay programme li ñuy dégg rek mooy yow yawma laa yanfa'u maalun wala banun illa man ataa Allaha bi xal qalbin saliim mooy comportement bi nga xamante ne doomu bi daf ko war a am ci jikko yoo xam ne daf ko war a dundee digganteem ak société bi ndax nit ki bu fekkente ne moom parewul ci biti du mën a pare sànq maa ngi koy wax ak Assane ma ne ko xanaa xamoo ne borom kër mooy président Macky Sall dañ ko def isaara rek mais aqiqatul président mooy borom kër ay soxnaam ñooy seen ñooy ay ministre surtout aar mooy premier ministre fu mu toll premier ministre Sadio moom kenn mënu ci dara yàlla ko def waaw soxna Ami Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye nga togg ay rek am solo la kon jigéen dafa am cër boo xamante sunu borom daf ko koo defal moom moo fekk fu mu war def dara sunu borom moo ne. wa min ayaatihi an xalaqa lakum min kon ñun nañu gën a yaraat sunu njaboot nañu gën a waxtaanaat ak ñoom nit ki boo ko yar bu ko gëdd bu ko yóbbu bu ko saaga comme ni ngay bëggee nit ki di waxtaan ak yow guddi ak bëccëg suba ak ngoon noonu ngay yaree sa doom mais Sénégal léegi li ci gën a bëri mooy seen doom buñ ko yar maanaam dañ koy war ñàkk kersa su ko defee xale bi bu génnee moom da yaakaar ne loolu rek moom du ko sañ a ci sa kanam nag. mais su sama yaay doon na ko def wala sama paap doon na ko def ay moroom loolu la leen di def su ko defee société bi day daal di commencé di am problème kon loolu ñu gën ko bàyyi xel bu baax dañuy bañ a guddal ndax daanaka heure bi dafa jot ba pare euh, sëñ si dafa am ay questions yoo xam ne dañ koy xaar te heure bi ñu war a taxaw. ah, ah. onze minutes rek nga waxoon. Assane man man wax naa lu ko onze rek nga waxoon maa ko def <laughs> kon léegi ñu dikk ci li ñuy wax njëriñu salaatu ala bi ban importance la am ci doomu aadama bi julli gi nga xamante ne daf koy julli ci yenant bi yow mënoo ne da ngay julli ci yenant bi ba pare te sa xol bi loo ko defar ba léegi dafay dellu ci cause bi ma doon wax parce que dafa yaatu kon ñun nan lañu war a mën a def ba réussir surtout kii suñu diggante ki ñu bëgg muy yenent bi ndax innal muhibba liman yuhibbu suñu borom dafa wax ne mutiya borom xam-xam bi ñoo ko wax innal muhibba liman yuhibbu mujib nit ki soo ko bëggee danga koy déggal mais aussitôt tamit nit ki soo ko bëggee danga koy topp yéen jigéen ñi li ma leen sant ba ci góor ñeen ñépp mooy ngeen faral di fonk seen kurus gis nga jamono ji ñu nekk nii gars amon amatuñu temps wu ñaanal kenn kenn ku ci nekk sa bopp doy na la waar ku ci jéemata waaru ci jamono nag bis boo ne ñoom ci biir bàmmeel ci ngay door a xam ne nag waaru jotoon na bu yàgg yaa waaru bu woon mais yàlla waar na la nañu tal sunu bopp ci di julli ci yenante bi lu ñu mën ci istighfar ñu di ko def sëriñ Cheikh jàngale na ci façon ku ne dañu def istighfar lu bari képp koo xamante da ngaa bëgg a nitu àjjana del julli ci yonent bi lu bari képp koo xam ne dangaa bëgg a nekk nitu safara del bañ kuy julli ci yonent bi wala nga koy dencal dara ci sa biir xol waxuma ko de waxu yàlla laa lay wax na xëy doo fi nekk di indi ay addis yu ngeen xamul mais li may wax xam naa ko baax te ñu ko dégg tamit xam nañ li may wax kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax a baax waxtu julli bu ngeen mën bëriwut ngeen mën a 33 salaatu bu ngeen mën na ngeen na ngeen julli ci yonent bi rek précisé wuñu dara 33 baax na 99 baax na heure boo amee jot ci diggante loo ci mën a def tamit nga def ko sunu borom dafa wax yonent bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne ko man salla alayya salaatan waahidatan sallallahu alayhi biha ashara marra noonu lañ ko toppee ba mu egg alfu marra waaye dafa am lu am lu doy waar lu ne ci biir asal muy man salla alayhi llahu marra lam yaqa fi samawati ard sab war aradina illa yu salla alayhi xam nga gars yi jaaruñu fii gis na waaw dafa mel ne est ce que gars yi dañuy nëbb loolu ah. fii foofu la <laughs> dégg nga mu ne képp koo xam ne da ngaa julli ci yonent bi benn yoon suñu borom neen dinaa julli ci yow fukki yoon comme ni ko xadis yi indee ba mu egg ci junni yoon mais dafa am leneen loo xam ne lu jar a bàyyi xel la suñu borom waxaat na yonent bi ne ko képp koo xamante ne man yàlla julli naa ci yow benn yoon amul luy des ci diggante juróom-ñaari asamaan ak juróom-ñaari suuf lu dul ñoom ñëpp dañuy ànd julleendoo ci yow ndax borom kër bu la feccalee surga yooyu yàlla du jullee ci yow lan mooy taxawati ci kaw suuf du julli ci yow mu ne bu fekkente ne da julli ci yenante bi ñetti per nga xëy suba rek nga julli ci yenante bi ñetti per yaa xam salaatu boo ko mën a lekk xëy rek nga julli ci bi ñetti per yenante bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam suñu borom ko yow mi def loolu bàkkaar desatul ci yow jéggal naa la say bàkkaar te saxalima bàkkaar trois jours dama koy def en kenn du la bindal bakkar trois jours xanaa kon képp ku xëy kay boo defee ñetti fer salaatu ala nabi rek dégg ko gaay naan faatiya salaatu faatiya dafa am sirru dana bëgg gaay yi bëri julli ci waaw mais li loolu yàlla wax waaw waxuma ñetti fan waaw mais sa xalima dama asal la nii nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax luñ ci gën a mën a julli mu gën a baax man nag Serigne Cheikh dafa maa balancé ci salaatu ala nabi moo tax man ci salaatu ala nabi la ëpp lu may gën di waxtaan mais ku may déglu ci tiktok bi sax dinaa waxtaan ci yenn xam-xam yi li yaakaar ne xaw ma ko dama koo gallaxndikoo talsam yi gars yi di foyee nii nee naa talsam yi bëri képp ku ko topp boo dee saxara nga jëm ndax ay turu iblis la man nag dafa am benn talsam boo xamante ne dama doon xuloog moom sëñ Cheikh ñu xuloo xuloo yi metti man ak moom mu ne ma naa ko bàyyi ma ne ko du ma la bàyyi ñu jël sama jabar yóbbu ko xale yi xam nañ ci dara ne ma soo ma bàyyiwul sa du ko dellu si ma ko la bàyyi ma toogum yaa sama xel yedd ma ma ne nag ismu bi wax dëgg la maa ko tooñ te gor du tooñ ma ne ko banaa la mu ne ma sa soxna la laa bolake maa ko wax mu bolake la ya li la wax ismu la ta gaay dañuy wax turu yalla du turu yalla serigne su bëri boo waxee dañ nan turu yalla te mën naa jot ci sama baaraam eh, nah, oh, kan ba ewmal mal am ko du turu yalla ndax ma sëñ bu ma ko tuddoon sëñ Cheikh xam na ne loolu du turu yalla man xam naa du turu yalla asan mais xëy na gars yi ñooy kii nag mais au fond dina xam ne lii turu yalla ndax parce que dàkkantal ba moo tax ma ñëw xool sama portable fekk ndaw si daf maa bloqué woon mu débloqué ma xanaa kon tur bi mu wax dëgg la mu cinq minutes de xam nga la ma waxaat bu guddi loolu ma indi ko mais bu subaa dana ñëw ci ëllëg sa la ko indi ne ma nag maandul ci samay mbir loolu ku sëñ seex da loolu fàttu doo ko mën a xam dangaa naan xanaa waa ji day léeb ak lippoon mën a fekk tur di ko woo mën a waxtaanal tur bi mu wax la mooy kan moo gën a wóor loolu sunu borom moom moo koy def kon de len waxtan ak salatu ala nabi ëllëg ñi nga xamne ñoy gëna jégué yenen jege bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ëllëg yowmal xiyaamul akbar moy ñi nga xamne ñoo ëpp li ñuy liggéey salatu ala nabi gis nga borom tal talsam yi ëllëg yowmal xiyaamul akbar yenen day taxaw fi ñu taxaw fele duñ bok sax fu ñu taxaw duñ ko sax jégué li mom ma la xox c'est garantie parce que waxu ya ma yent ko anil hawa in huwa illaa waxin yuuxa yente lu wax de neena ñi may gëna jégué jege yowmal xiyaamul akbar moy ñi nga xamne ne ëpp ñuy julli ci ma kon nañu gën a julli ci yonent bi dégg naa benn waay ci TikTok bi mu ne am na benn xale boo xamante ne dafa amoon ay problème xaw dafa xawoon a dox xaw ma tas la ko sax sama lu doon liggéey. Hmm? dégg nga ma ne ko sëñ Cheikh ne woon na ma liir du lekk yàpp. Hmm. su leen di tere yenn yi ngeen di bañ wax ak nit muy dëgër bopp des fois ñu borom sikkim boo xamante ne li ko dal yëpp dara teg ko lu dul bëgg xam-xam ba dugg ci loo xamante ne maîtriser wu ko dajale ay talsam yaakaar ne borom xam-xam loolu ñëpp mën nañ ko. da ngay am xam-xam sa xam-xam am xam-xam sa xam-xamu xam-xam jàngal la xam-xam ngay door a am xam-xam mais du dul loolu da ngay liir comme ñëpp ñu leen bëri li ngay julli ci yeneen damay julli ci yeneen bi lu mi day julli ci mu mën Assane may day julli ci yeneen bi lu mu mën ñii ñëpp dañuy julli ci yeneen bi lu mu ci yeneen bi dafay gën a defar sa jikko dafay tax nga gëna mëna xeex lu lu bon gëna bëgg lu baax julli ci yent bi day yok xam-xam julli ci yent bi dafa yok leer julli ci yent bi dafa yok wërsëg julli ci yent bi dafay effacer say défaut day ubbi ay buntu aljana ci yow ki la ëppale ay pale ci bir aljana moy ki nga xamantene mo moo la ëpp lu muy julli ci yenente bi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nit ñi bu ñu duggee ci biir bàmmeel li ñuy gën a ñeewantee du ay jaamu yàlla ay allah akbar yii déedéet li ñuy ñeewantee ci biir lumière yi fi muy ëppantee doole ku ëpp lu mu julli ci yent mooy ëpp lumière yéen ñii di julli ci yent bi ëllëg yowmal xiyaamatu akbar bu ngeen dajee seen lumière benn lumière lay doon yàlla moo ne yent bi gars yi nga xamante ne dañuy julli ci yent bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa am ay sart nag yu bëree bëree bëri dafa ne man salla alayhi mu ne képp ku julli ci moom ñu ne ko kan mu ne ko muhammad rasulullah salaa sallam mu ne xubban lii wa shawqan ilayhi al ala llahi an yaxfiru dunubaka jamia mooy la nga ne tax asan ne loolu kon ay programme la képp ku julli ci yonent bi a waxoon ni taf-taf ni déedéet boobu baax na mais ku julli ci mom ngir lan bëgg ko ak sopp ko rek mo tax nga julli ci yent bi yalla neen akala ci man ma jéggal sa mbolem bakkar yi dam nga ba kon affaire ay kot la da ngay dé bo laccé wul do ci xam dara mo loolu mo waral nak am kilifa am solo loolu mo tax nit ñi di dem di dugg ci tariixa di leen jox kot yi ñu koy liggéey di mëna jall comme lolu lu jara bayyi xel la kon lu ñu gën a mën a julli ci yonent bi rek muy gën bi baax mu ne kon nag yow mi nga xam ne yaay julli ci yonent bi ci yoon yooyu nag moo tax ma ngi indi ne allahumma inni nawaytu an taqarraba ilayka bi zikri haadihi salaatu ala nabi karim al muxtaar an taabudan laka wa ijlalan laka wa taaziman nangam nangam nangam ba mu jeex waaw mu ilaa daal lu ko waral mooy loolu maxsat mooy lay wax maxsat mooy laytaay waaye déglul taazima salaatul taazim moom la yàlla jullee ci yenente bi al maanawi ak taazim moom la yàlla jullee ci yenente bi yàlla nekk fi naan ay allah akbar ay sami allahu liman hamida déedéet al maanawi la jullee ci yenente bi asalaatu min allahi rahmatan wa taaziman wa ijlalan wa rafaan fi sanaa'i wa fi l mala'i ala loolu moom leneen la su ko defee nit ñi nag mën a noppale kon léegi nag ki nga xam ne day julli ci yenente bi ci salaatul taazim mooy ngir màggale ko yenent yàlla muhammad kooku na bàyyi xel ne moom ak yàlla ñoo bokk même pied même degré bi ñu koy defandoowee bokkut ak koo xamante ne nag daf koy def ngir am soxla loolu moom leneen la ku koy def ngir am soxla nag kooku da nga ko def ngir da am soxla yàlla dana faj sa soxla mais nag ku koy def ngir jëmbi yenent bi kese yalla neena dina faj ci soxla aduna dina faj ci soxla alakhirah te do am benn jafé jafé bu ñu togon fi di wedd ay tal sax nga tok fi di julli ci yeenante bi balaa ñoo faj aajoo sa aajo dañ koy fajj ba pare bi boobu ñëk la ay xadaratu ilaahi sax ba taxaw ci buntu ba bu fëggé kenn du ko ubbi mais yow mi wax salatu ala nabi yow bala nga ñëw 1000 km bala nga exi si ubbi nañ bunt yëpp taxul la xaar yow bo ñëwee dif ngay def xam nga lu ko waral yante bi moo ne sunu borom moo ko ne gis nga sama kër gi sama bunt yi ne ci kaw amul benn bu fay jaar bi xotti benn lumière lu dul salaatu ala nabi moo koy xotti moom la waykat bi naan waaw ilay yona mhm. fa anta baabulaahi ay umri mu ngok ataahu min xayrika la yàlla mu ngok yoo ko woy dama waykat dama dégg nga dafa mel ne dafa mel ne sama temps di jeex na de. ah Assane sept minutes dina gudd de sept minutes man Assane léegi mënatuma wax lu bari de dégg kon loolu ñu bàyyi ko xel ci salaatu ala nabi boo gisee ma ci insister dafa am lu tax bi ci topp mooy nañu insiste tamit di jàng faatixatul kitaab lu bari dama leen bëgg a xamal leen na gis nga iblis dafa ñëw dugg ci làmbu sëriñ saw téere yëpp lu naqaree dégg laa wax dafa ñëw dugg ci làmbu sëriñ saw téere yëpp li waj illaahi aka raar ci téere yi li waj illaahi akar xam na li may wax wa man araada wa man toj nañ sa bopp bi maanaam jaamu yàlla dafa def nii léegi intérêt rek la ñu def yàlla sax dem na bay posé question ne man xanaa man su ma bindul àjjana bindu ma sawar kenn waruma jaamu aarif xam yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dañ ne bu yàlla bindee safaraat bu ko bindu juum ñëpp ñoom seen yoon new ci lool ñoom dañoo am amuru jaamu yàlla dañuy jaamu yàlla soxlawuñ àjjana soxlawuñ safara ndax àjjana yàlla moo ko bind safara yàlla moo ko bind àjjana neexul safara naqarewul ki neex mooy ndox ndox ci digal suñu borom moo tax boo demee ci maqaamaatul yaqin daf la koy indil dernier maqaama ba mu al mahabbata la lay wax te mahabbata boobu boo ci xësee taxaw moo la indi ci baabu tamkiin te nit ki li fekk amul tamkiin wóoragul benn station sa diggante ak sa borom dara wóoru ci kon asrar bi nit ñi nek nga xamantene diwan la ci diwanu yalla dafa am diwan bu tuddu asrar motax tax man la iblis da ko saw li seigne Cheikh doon wax afay yi dafa am lo xamantene il faut nga jang tuuti pour nga mën ko comprendre bi mu ñëwee nak iblis dafa indi ay turum duggal ci dama fatia ma defal li gis nañ loolu gis ñu sa ko santane de moom la defal ma fatia ak yeneen ak yeneen yu gën a garaaw yooyu noonu jël ay turam boole ci biir naan la bii tur yàlla dañaa ne sax saxaar sox soxor yu kenn xamul xolal daru du ci dëkk ay naxee bàyyi barki yent yàlla Muhammad li ma wax dafa leer de ba aas daru du ci dëkk maa fe supp kànja dama daa taraw tek bu ma calculer mu jox la tur nga tëgg ko mu génn doon tal ñi xam ne ñemee wax nga xoolal mu tolloog dara ci alquran ñëw ak fekk du alquran dafa am lo xamne dañ koy wax turu yalla ya te du turu yalla ya turu alquran ak turu yalla ya du ñu ben da program, ñëw ci fatiha ñu na arsata lolu turu fatiha ñu koy jaamoo yalla ak ay programme ak ay programme mais nañu moytandiku c'est comme xamé wuñu buñu boñ ak buñu moxom nañ yem ci lu yem jaamu yàlla dem seen yoon man daal gis nga man gis nga fu toll nii man dara yëngalatuma sëñ Cheikh ak ngir am na tey tur boo xamante ne gaa yi nee nañ day may alal man bi ma koy liggéey liggéey ma ko pour ngir alal mais xam nga lu ma ci njëkk a seetlu man nag ku mën a seetlu tur laa nee nañ am na ay kilifa diina yu bëri yoroon nañ tur bi su ma koy liggéey xam nga li sans problème Assane mooy. sama oto chaque jour mu paar xam nga sëñ Cheikh waxoon naa la chaque jour oto bi paar tur bi su ma yéegoon sa oto tey jii su ma tuddee tur bi benn yoon oto balaa moo egg rek moteur bi day moteur mooy xaru nelaw benn xam nga ko tur bi mu ngi dund mais est-ce que yow mi ko yor yaa ngi dund yow loolu moom mooy wax bi li ma yàqal ci ay oto kenn mat na juróom-ñaari oto oto yëpp yàq pour l'instant nii. maa ngi gaare ñetti oto yoo xamante ne tur bee ko yàq véhicule bi ma fi néewoon daal tur ba yàq na ko ma nga ca gaar ba tey <laughs> du question doo ko bàyyi man liir du ma ko def maanaam tey jii boo toogoon di ci wax di isaar ne boo ko tudd benn per rek benn per bi rek mën na jaxasoo lu bari moo tax bi ma ko waxee sëñ Cheikh ñu waxtaan ci man ak moom tur boobu nit yor na ko waaw tur boobu nit yor na ko dama damay artu nit ñi si ci tur yi ñuy zikkar yi rek tur boobu nit yor na ko di ko zikkar kii moo ma wax sëñ Cheikh xam seen sëñ Cheikh moom ko waxoon sax waa ji di ko zikkar ba dugg ci benn làkk boo xamante ne ay bopp nit rek lañ fa def lu ko wax mu ne ko yow xaw ma da ngaa taalibi Seexu Tijaan nga am na lu xaw ma damaa ruus xaw waaye soo mënee bàyyi salaatul faatiha daal naa defal li nga bëgg soo mënta bàyyi salaatul faatiha boo ma wootee naa xam nga ban tur la tur bii ma lay wax nii nga xamante ni tur bii nii léegi nag sëriñ bu ñu xam loolu di nga xam kon asl bi lan la qu'est-ce qui se passe te moom fañ ko lonk dañ koo lonk ci tur yàlla bu set wécc génnee ba mu leer naan Seexu moo leen dëgg amul Cheikh Tidiane yor woon loolu lu jóg rek ñu dóor Cheikh Tidiane lu jóg rek ñu dóor Cheikh Tidiane yow yaa fekkee fi Cheikh Tidiane kon loolu lu jar a bàyyi xel la faatixatul kitaab bi ni ngeen ko fonk foofu lay tëjee faatixatul kitaab boo koy jàngal am na fukki miim ak juróomi ci ne benn miim bu ci ne boo ne bismillahi rahmaani rahim maanaam jàng faatiya rek benn miir bu ci sunu borom daf koy fëttal mu nekk benn malaaka benn faatiya mu nekk benn malaaka kon fukki miim ak juróom la fukki malaaka ak juróom ñooy génn malaaka yooyu noonu suñu liggéey dañuy dem ba aras la ngaamu fa su ko defee aras daan sunu borom man de tey damaa diis lool lu tax ma diis yéen ñii yeneen ñan ñu ne ko ñun ñooy faatixatul ñooy miimu faatixatul kitaab bu Assane Ndiaye waaw ñu ne yow yàlla ah su kon ñun toll nañ ci diisaay nii ba aras mën a yëg ni ñun dañoo diis yow yàlla dolli ñu diisaay su borom mu ne ma dolli leen vingt pour cent ñu ne kon yàlla doyoo la ñu suñu borom nee na ma di leen dolli leen dolli ba dolli mil pour cent gis nañu wala gis ñu léegi nag benn picc bu ci ne benn malaaka bu ci ne xam nga nu mu toll juróom-ñaar téeméeri junni la la am xam nga juróom-ñaar téeméeri laaf de juróom-ñaar téeméeri junni laaf la am laaf bu ci ne laaf bu ci ne rangu malaaka yi ci ne ñoom seen laaf yi am na juróom-ñaar fukki junni laaf ba mu jeex góos ba mu jeex loxo bii ñu ngi ko bindee shahidallah annahu laa ilaha illa huwa malaikatahu ulil ilmi qaiman bil qisti laa ilaha illa huwa al azizul hakim moo ko tax boo ko waxee benn yoon suñu borom ci leer boobu génn juróom-ñaar fukki junni malaaka ñoo ciy génnandoo di la jéggalu yàlla ba yomal xiyaamatu ak bàtt duñ taxaw alquran la iya iya am solo nañ jëlwaat ci alquran da bàyyi yenn yi fu caaxaan la waxuñu ko pour nii mais da di réalité moo tax parce que man lu bëri sëñ Cheikh daf ma cee gindi xamal ma ce qui se passe beneen côté bi ci des surtout ixlaas lañ ko bindee surtout ixlaas boo ko jàngee ñett am jëmm ji ñu bindee ko faatixatul kitaab mais bopp bi bopp nit la kon loolu mooy li nga xam ne moom laay buñ ko topé suñu borom dinañu gëna a dolli sutura dinañu gëna a dolli tawféex ñu gëna rafetala xol yi rafetala jikko yi gën jéggal ci suñu biir suñu fexé lo xamante dafa dépassé ñu xamné suñu yéene kese moom mo tollu non féké la lu bay lu ci mëna doon nek ñu ngi koy tuub diko jéggal jéggalu bu baax waaw di jéggal ñëpp rek zahira ta wa baax na tan alhamdulilah rabbil alamin sayna asam bismillah ana tafé ki ni ya rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah damay jot li benn yóbbante rek ah kii di Aminata Diallo di doom ci Amadou Seye Diallo moo yóbbante ay kàddu ci bàyyam nee na ngi leen di seedaloo ni benn bii de jur na fa mu ko war juree jàngal na ko alxuraan jàngal na ko école yar na leen ci diina ak charia ah ba fu ñu mën a dem rek mën nañ fa nekk te ñeewuñu seen benn moroom ah kon bu ko ñëpp séeréeree mbaax mi ñoom mën nañ ko seen lu ëpp loolu kon dañu ñaan nee na ngi ñaanal seen papa ji yàlla na fi yàlla yàggal tu ànd ak wér Ah, ndax li war ci doom lépp moom def na ko nee na ñoom ñoo ko deseel waaye moom deseel la tuuram dara kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax loolu nag du samay kàddu kàddoom la moom moom Aminata Diallo doomu Sadio ba ca des ah bu ñëpp waxee nag asamaak soxnaam ma ne toog moom de nee na borom kër gu mel na borom këram gii neewul amul de waaye nee jafe na ah nee jàppale na ko suturaal na ko yërëm na ko a ah, amul fayam yal na yàlla fay ko dafa koy ñaanal rek yàlla may ko fa mu gudd ak wér ah ba mu fekke njabot njariñ njabot gi yëpp nee na taxaw na ndeyam ba macha allah yàlla yóbbu ko ah wax dëgg yàlla mi ngi leen di seereel ni kontaan na si jëkkëram ji rek ah ci gàttal daal temps bi dafa gàtt moo tax waaye li ñu waxoon lépp passé na fii ba ca des it ah moom ay xaritam yu muy àndal ñuy nekk di booloo saa su nekk dimanche bu jot ñuy daje ci kër saajo ñooy joxe ngërëm ñoom tamit jëmale ko ci Sadio ah li ko ñaanal rek moom tamit ndax amuñu amuñu fa ndax dañuy daje ci këram mu mbaamu saajo du ngaan du wax du leen wax dara ah, wax dëgg yàlla loolu bu koy def sa kër. dajale mboolu mom yëpp ah te amo dara lo ci wax sant rek lañ koy defal kon Sadio yóbbanti bu gatt bobu lañ defo gi waxon na len ko ni ak eh, xaritu Umu Njaay yi nga xamni ne dajale ci kër bi ak yóbbanti bi nga xamni te la sa soxna waxon kon sëñ Assane ñu lay delu micro bi jërëjëf sëñ Maguette jërëjëf kontaan nañ ci macha allah am na solo njàngalin la te li nga wax tamit kenn mënu koo dindi ci ko am xam-xam am dégg ku na xam na ne bàkkaar boo def yàlla ngi la koy bindal waaye benn salaatu ala nabi mën na koo faar te beneen bu mooy li nga wax ne li ma la tontu sànq ne la da baax rek ak sa mbëggeel ci yonent bi moo tax nga wax ñetti fan waaye benn salaatu ala nabi yàlla ku mu julli ci yow sa yaram xaraamal safar te yàlla ne ci sama yonent bi rek xajul ci ñun wax la fukk yi kon jërëjëf neex na macha allah am na solo njàng bu kawe la te li nga wax tamit xam naa ko gis nga taal sa luy ko ko mooy tuub moo tax lépp lu ma ciy jàngale su ma xamul aslu bi du ma ko joxe ñi mën nañ ko seede ci man luy jëm ci tur yàlla bu ma xamul foo mu jege xaw ma lan moo ci zulmaani yëpp nuraani du ma ko teg ndax buñ ci amee problème am nga ci responsabilité moo tax sunu kilifa ko teel ko ca Tiwaawan moom nee na man leen rek la am walay sa lii amalu alqaaka ya amali si wàll mahabbati wa taazimi wa salami jeex na alagement nee na foo mënti jege loo mënti soxla ci man lenn dong la am lu ma la mën a jox bëgg yonante bi ak di ko màggal fu ma toll rek la am loolu la Cheikh Ahmad Bamba ñoo ne man sax du ma wut maqaama man damay nekk binda kon man ñu junj nañ ñu ñu ñoo ci dess te ñu ko waxe ni machallah tabarakallah yalla na yalla moy ñu ñu dégg ak xam fa jangale ba toll machallah kawé na amna soko wax lool du baax kon imam ñu de la waat de la ziyara de la jéggalu ci togaay bu yàgg bi ndax wax dëgg yàlla kilifa ñu ko téye lu yàgg waaye nag ni ko sëñ bu baax bi waxee sànq mbir yi ren dafa ala daw mi lu mu déborder tuuti nit bu nu ci ndax namante bi ak saafonte bu neex bi seddante kàddu yu baax yi moo war a temps bi guddee nii ñu la ciy jégalu bu baax euh, di la sant suñu sa teewaay te seen laa jox micro bi te taataan nopp yor xel yi ndax kilifa bu ñu wax su ci bëggee jëriñu bu sa nopp doy ndax xol bi teewlu xel mi teewlu parce que nopp moom day jël rek dox la xol moo koy téye xel segg ko bu yooyu amul rek doo ci jëriñu kon yàlla nu nañu yàlla defal dégg nopp xel bu taataan wala boo xol bu taataan ak xel bu sell bu sell sell boo xam ne duñ ko mën a segg ba la lépp njëriñ la lépp ñu mën ko jëriñoo yàlla na ko yàlla defal kon imam Cheikh dafa dal bisimilah. Euh, xam naa bu ñu bëggoon a noppalu dañuy ñaan ci nit ñi waaw ndax liñ seen daara fajtal ñëpp nag luñ ma waxoon pour yonent bi alkitaabu lu muy tekki moo boo dégg ne alkitaabu wa sunna baatu alkitaabu mooy téere boo xam ne moom rek moo la mën a génnee ci réer amul benn téere bu la mën a génnee ci réer lu dul alxuraan loolu la baatu kitaabu di di tekki moo tax suñ la waxee ni lan mooy alkitaabu wa sunna alkitaabu téere alxuraan la moo la mën a génnee ci réer mais wa sunna mooy yonent bi ni mu jàngalee alxuraan léegi nag ki bëgg am cofeel ci yonent bi ndax ku am cofeel ci yonent bi yàlla dootu la lakk ci àdduna dootul la lakk ci àllaaxira alxuraan nag mën na la ko may wax naa ne léegi imaamu Shaaraani imaamu Shaaraani ñett yoon la gént gis yàlla waaye imaam Ahmad ibnu Hanbal gis na yàlla téeméeri yoon téeméer toog na yàlla ci gént mais bi mu laajee yàlla ni ko ku lan nga gën a bëgg ak ku la bëgg jege lan lay def yàlla ci boppam moo ko wax ne ko képp kuy jàng alxuraan yaa ngi may jege sa doom ji léegi ke njëkk a ñëw jàng na sa xarit jàng na laa aqsumu bi yawmil qiyaama laa aqsumu bi hada albalad wa anta xillun bi hada albalad wa walidin wa ma walad laqad xalaqna al insana fi kabad laa aqsimu kon lu yàlla bu ne oksimu maa ngi giñ ci réewu màkka bi haadal balad màkka bii yonent bi juddoo ci la yàlla ni ko yow am nga sañ-sañ ci dëkk bi lu kenn sañul moom yonent bi wa anta xillun bi haadal balad ñun de daf ne ko wa anta xillun bi ci dëkk bi nga juddoo ñu ni déedéet wa anta xillun bi haadal balad mooy yow li nga sañ ci màkka kenn sañu ndax yonent bi rey na ci lu mat juróom boo demee Hamdul Busayri moo ko wax ci xam siyam ba juróom yoo xam ne ci ëttu kaaba bi lañ leen rey te amuñ bàkkaar te képp ku rey ci mu màkk gàtt sax boo ko faree day am bàkkaar yàlla nag ni yonent bi yow am nga sañ-sañu def ci dëkk bi lu la neex te kenn du la ko topp wante nag maa ngi giñ wa waalidin wa ma waladat maa ngi gën ci yonent yàlla Ibrahima mi nga xam ne moo samp kaaba bi wamaa walada ak Ismaïla mi nga xam ne moo ko dul dimbali ci tabax bi kon lenn lañuy bëgg yonent bi mooy wax naa la ne nga naafi nit ki di naafi la guddi am na lu lu mbokk mi junjee lu sëriñ màggal sëriñ si ñu topp bëgg leen fonk leen yaakaar ci ñoom àllaaxira su fekkente ne nag ñoom defaluñu yàlla dara ñu yaakaar leen bu ñu demee boo météo duñ ko fekk dara léegi nag ñuy wax nit ñi ni leen am na lu yomb lu xam ni képp ku ko def jàppal ni yor nga sa caabi àjjana doo yaakaar sëriñ mu jox la ko. xanaa kenn la kenn wala ñaar lañ yaakaar bi ñoo la ko mën a jox mooy sa ndey ak sa baay jox la sa caabi àjjana mais lu dul loolu yow yaa war a góorgóorlu yore sa caabi àjjana yi bu ko bàyyee benn sëriñ ndax sëriñ si kër talatuñ kenn ni àddina mel ak li muy def am na loo xam ne waxuwul yonent bi bàyyi fi baayam xabbaas ni ko maa ngi lay xamal la boo xam ni boo ko defee bàkkaar boo mën a am lu bàkkaar bi rëy rëy rëy boo ko def boo doon boo dundoon téeméeri at bis bu jot nga def téeméeri bàkkaar bis boo defee la boobu keroog bàkkaar ba nga amoon jeex na takk takk dara amul mais sëriñ loolu kay ñun ñoo ko moom ndax ñu ngi topp sëriñ si yaakaar leen sëriñ si taluñ ñu yaakaar naa ni ren rek sëriñ si war nañ ni taluñ ñu ndax nit ñi bi ñu jaaxee naan na sëriñ si wax na sëriñ si wax ban sëriñ a wax ñu naan ñu ngi wax ci lu ñu ni déedéet wax ci lu baaxul moom kay sëriñ yi ba moom lay rolam na ñëpp yëpp ñu sëriñ baa ngi wax bu wax bi jëriñoo moo xam bu wax bi jëriñul moo xam nee na ñëpp yëg ni mi ngi wax benn sëriñ su fekkente ni wax na ñun dégguñu loolu nag li ñuy tekki mooy ñii ku la tànn ci àddina bii bu demee yomal xëyam du la tànn kon nag nañu am suñu taxawaayu bopp naafile bi bu yomb yomb la gis nga bu ñu waxoon naafile bi kenn ku ci nekk mën a def démonstration bu mu wóor ni man nga ko nañu ñaan te dem bu déwénee ñu indiwaat beneen bi yeneen bu ngeen bu amul njëriñ. man sax dama doon wax ni conférence yi ñuy def dañ ko war a changer bu koor gi jotee ñu defaru ñi nangam nangam kon waa ji ustaas bi wax wax wax ba kii ñu ñaan dem ma leen amul njëriñ xam nga lu am njëriñ mooy conférence kenn ku nekk am nga yow personnellement ci sa bopp am nga lu la jaaxal ci sa diine nga bind ko suñ ko bindee teg ustaas bi toog ni diw de nee na am na lu ko jaaxal ci diine mu bëggoon ustaas bi dimbali ko ci nan la koy defee bu dee lu ñuy réparé mu wax ko ko bu dee lu yokk mu wax ko ko bu dee luy ubbi diggante ma boroomam mu wax ko ko kon diw moomu am am am itte ba bind aajoom bu ñëwee ci conférence bi buñ ko ko laajalee moom dana ko yóbbaale su boobaa mu doon xam-xam bu ko jëriñ mais loolu amatul mooy naafile léegi yomb na léegi def na dañ ko xewal sax ñépp a koy def mais muy subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar man nag ma ni façon bi nga koy defee ngeen déglu ma de bii kese ma ne buñ ko waxoon te ñibbi doy na ndax lan lañ bëgg mooy jariñ fi jariñ loo xam ne wóor na la yow lii boo ko bàyyiwul da nga dugg àjjana ndax yeneen ta ko ne la boo ñëwee fas yéenee def naa fi léegi boo ne allahu akbar bala ngay tari léegi ndax dugg nga ci biir julli nga ni allahu akbar léegi nag dugg nga ci biir julli bi bul tari faatiha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 soko waxe 15 ba pare doga tari fatiha ak sar bu la neex ya. man damay bañu a tudd saar ndax dañu japp bo tuddé sar woowu rek moom nga wara tari dede ak sar bu la neex ya, ak loo mën soo mënul sar ci alquran donte man nga ben aaya ndax xul huwallahu allahu ahad allahu samad ñun ñëpp ko mokal même loolu rek boo ko mënee loolu kese kese kese boo ko mënee doy na kon kàbbar bi te kat ñun ñëpp bari bàkkaar ñun ñëpp fi yore ay bàkkaar yu dul jeex kenn ku ci nekk wéet nga def bàkkaar boo xam ni yaa ngi toog doo ko fàtte mais doo ko wax mu bàkkaar boobu xamoo ndax yàlla baal na la ko wala baalu la ko lii nag boo ko defee garanti li yàlla baal na la lenn moo tee ma dem àjjana muy faatu du caisse la wax ba nga kàbbaree nga tari fatiha ak sar bo man wax ko fukki yoon subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah allah akbar nga wax ko fukki yoon kon ci taxaway bi wax nga ko 25 fois nga jàpp sa om wax ko fukki yoon subhanallahi والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر نوح وفكيون سيجي سمع الله لمن عمله تها واخ فكيون دادي ركو دادي سجود تي بير سجود بي واخ فكيون توغا توغا بوبو نغا واخ فكيون سجود ات واخ فكيون سوكو كالكلي امغا 75 سبحان الله والحمد لله benn rakka bu nekk soixante quinze fois lay doon soixante quinze fois quatre muy. trois cent muy trois cent. waaw. lii la yonent bi wax baayam Abbas ni ko boo ko defee bàkkaar boo mën a def lu mu rëy rëy rëy rëy yàlla jéggal na la keroog keroog bu ni ko ni nga ñàkkee bàkkaar muy xale bu juddu tey te kenn ngeen teewu ko amul bàkkaar mu ne ko yow noonu nga sete ci bàkkaar waa kon loolu ñun ñii. loolu jaroon nañu ñu fàttali ko rek te ñibbi àjjana lañ bëgg te ci làmmiñ yonent bi lañ ko jàngee kon nañu bàyyiwaat suñu xel suñu sëriñ si ñu àndal nag nañ leen ormaal ngir yàlla ak maam ya ngir yàlla ak bàyyi ya koo ci dem ba gis ni kii kat li muy def du sharia teel sa làmmiñ te bu ko ci roy bul dem fenn naan sëriñ ba nii sëriñ ba nii ndax yonent bi nee na képp ku def bàkkaar ci pénc nga fexe ba tasaare bàkkaar boobu ba àddina yëpp di lawlawee bàkkaar ba yonent nee na bala ngaa dee yàlla dana nattu nga def lii mooy li nga xam ni képp ku ko def te yonent bi sallallahu alayhi wa bépp nit buy naafila guddi yàlla daf lay bëgg bëgg bëgg bëgg ba mbëggeel boo xam ne xam naa ñeme wu ma misaal comme Serigne Sadio Diallo ak Soxna Ami Ndiaye nee na képp kuy naafila guddi noonu la yàlla mel ci yow bi ngay ngor nelaw ngir bëgg koo jot yenen ci bi kep képp kuy naate la guddi nan ngay mel ci yàlla moo tax naafi guddi bu ñe nga ñew ci mom ni ko man kat dama am problème sangam problème sangam problème sangam ñu le demal ci imam asan gaay gis nga bu mu fekk naafi guddi la boo ko waxee aajo bi bu déggee bu duggee ci ci ci noppam balaa asana jóg di jaamu yàlla yàlla faj aajo ka lim daf ci am kay fii ba xam ne sëriñ bi daf koy wax nit ñi mais nit ñi moomuñu ko sëriñ bi ci boppam moom moo ko moom dañ lay wax ni mënoo nit ku ñëw nga bindal ko bépp sëriñ buy bind amul ijaab ku xas ba am ijaabu dootoo bind bu nit ki ñëwee kay dafa lay wax aajo ba pare nga ne ko tàllal sa loxo bu la neexee sax bul ñaan boo ko dee ëf ëf rek boo ko defee aajom faj dama am sama mbokk mu baax yàlla ko yàlla gërëm ñu wax Soxna ma ànd fekk sama mbokk gendarme boo xam ne dafa war a def ñuy am borom ñetti wéy yi M2 chef def na. waaw te léegi nag mu war a mu war a def examen bu jafee-jafe ñu ànd xam nga lu ko Ibrahima Soxna wax demal jëndal ma butéelu avion mu jënd butéelu avion Ibrahima soxla ci boppa moo ko dajji naan ci tuuti ba ca kanam mu ub ko ni ko demal nga sangoo ko dara am mu sangoo ko rek am loolu la naafe la guddi di def suuf damay wax ni turu yàlla du indi xaalis maanaam du bu turu yàlla doon joxe xaalis dëkk boo dem taalibe yi ñoo koy tane te dëkk boo dem taalibe ñoo ko gën a sonn loolu loolu xel yow yaa ko war a xamal sa bopp nga xam ne li may sikkar xaalis ñun ñëpp ay taalibe lañ dañ lay wax ni suñ la joxee turu yàlla na noonu na nekk alxuraan gis nga li may wax nii koo xam ni njaboot na ci Seydil Hadj Malick mais tur ba mu doon zikkar yàlla na na ko la ko dal nag yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal dafa njëkk a nekk dof ba mujj musal maxatet ci c'est grave am na ci koo xam ni soo ko gisoon maanaam doom bàyyi la ci man bu la bu bu soloo bu romb la nga ni Serigne Cheikh Tidiane si moo la romb yiwe mais tura ko dofloo fi ñu nekk bopp ci biir ci buntu kër Serigne Cheikh lañ ko seen muy ñëw di daw di ñëw muy yaay te dafa yówoon kii ñu gis ko muy daw mu daw romb ñu dugg ci biir kër gi dugg ci biir ron lan bi ne aywaay dimbale leen ma nag bi dana nee na benn naka koy dàq dimbale leen ma dimbali leen ma dimbale leen ma waaw comme ñan la sant comme man di waa Tiwaawan di waa yow mu ñëw wax ak moom wax moom ba mu génn benn bis ma ne maa ngi dem Tiwaawan seeti ko ni ma demal marché bi ma demee marché gis nga mbër moomu gemb war a bëri laa ko fekk mu gemb takk jàjj nii nekk ji marché bi di jeex rek billaahi fi fi ma taxaw nit ñëpp a may xool ndax man xooluma ni ma ni mu ni mu mel nii xooluma ko damay xool na mu meloon na ak lii ko dab ni mu gaawe te nee na tur la te du tur yàlla ndax lii Assane wax talsam boo mën a gis nga ci xam ni lii nuuraani ak li ci zulmaani ndax talsam dañu koo dajale liñ ci dajale nag yow il faut nga segg ko ba mën a orienté sëriñ taalibe bi mu def ko waaw bu ko sëriñ bi xamul nag kon nag li ñu xam ñun ñëpp muy alquran muy alquran ndax سخرين يلا يعني فلق عمل عقبة فلق عمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مذهبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة يلا دفع أم بين بارات بمدفنين نئلفون نتكي بيت بارات بي ولو دودو بسما عجلة yoon wi ñu ko defal yàlla nee na nit ku mu mënti doon bu ko bëttul du dem muy falaqta amal aqaba yàlla delluwaat laa yonent bi ni ko wa ma adraka mal aqaba ana lan mooy aqaba baaraat ban baaraat la war a bët mu ne ko fakku raqabatin man nag fakku raqabatin dama wax ni comme jaam amatul nit ku am ay bori luyaas yi mu mënul a fay te di jullitu yàlla boo xam ni wóor na ko ni moom bëgg na fay mais amul lu mën a fay yow boroom alal bi nga gëstu ko ba gis ni kii kat am na bor lu yaatu munul fay nga waxtaan nga ni ko tey di li ma indi damaa bëgg nga wax ma ñaata bor lu yaatu nga am ay arrière mu ni la ah kër gi sax dama ko rus gis ndax bu ñëwee daf ma du ma laaj te dama koy mujj làqu nga ne ko ñaata la nga ne am na cinq mois wala six mois yu ma fay voyage ñu calcule ko mu teg ko ci loxo borom kër yi xam nga fattu raqaba mooy nga fekk jaam bu ñu yeew nga yeewi ko mais kooku bor jaam amatu ndax boo ko waxee nit xanaa jaamu comme maak ak maak anigaay sama doom bàjjal la may doomu nigaay kooku waaw ah kan la jaamu kan la mais sama jaam nga boo dëgg dëgg dëgg boo xoolee boo demee police ñu tëj la kon jaam boobu mooy ku ay bori luyaas yoo xamul xamul fu mu koy fayee yow boroom alal ji nga ñëw fexe ba fayal ko ay bori luyaasam kon fakku raqaba kon fekk nga ndax boo paree rek doo ci yem de bi nga paree nga ni ko lii kat maa la ko jox ndax dafa am benn mbokk boobu maa nga woon fajjin mu jógee Saalum ñëw ni dafa feebar dugg ci biir wal fajjin ni ma gis nag maa ngi dugg ci biiru siir la mi di génn di dugg di génn ni mu yoree puus puus ni ma waa sëñ bi doomu dimbali ngir yàlla comme maa ngi yaa ngi dugg ci siir la mi mënoo ma faa yóbbu pour mu dimbali ma ne ko man ma ne ko aw ma droit awma ci droit ma ne ko yow looy uti mu ne damay uti ndimbal ma ne ko fii ko bu la fi sii di fekkee waxuma yow de mais kii la fi ko daal. ki la ki fexe ba dugg fii moom bu ñëwee moom lañ ko licencié ay tëj keroog sax nu yàlla na ma yàlla jéggal wax naa ko loo xam ni waxuwul ndax tooñ naa dama ne ko fii kenn du fi uti ndimbal. ma ne ko su fekkee xam nga bopp lii na kër El Hadj Bàcci Diop moo kër Serigne Cheikh Tidiane ñoo taqaloo bàcc boo demee boo ko waxee dana faj sa aajo ñu daal di jël waa ji werante wuti de ñu uti ñu uti taxi Ablaye Lam moo ñëw ni booy bi puusal kii kii ba mu génn ñu wutal ko taxi ba mu dem bi mu ñëwee mu jël puus puus bi mu ba mu laajtee fii mooy bureau bàcc ñu ne ko waaw mu sës ko ci bunt bi ci toog di xaar bàcc bàcc ñëw mu ne ko El Hadj Bàcc El Hadj Bàcc bàcc nañu ko nanga def mu ne ko saalum laa jóge damaa feebar te dama bëgg lu ma fajoo te amuma mu daal di woo jiiba mu ne mu ne jëlal ko jëlal ko ordonnance yi jiiba ñëw jël ordonnance dugg ci bureau bàcc bàcc jëlal ko ci ñett ñetti ñetti ñetti yi mu jëlal ko ci ñetti yoon daal di oo mu ñëw juróom mu ne ko jëlul naa la ci ñett bu yàlla dogalee xëy na balaa ordonnance bee jeex mën na am jàngoro ju wér ji daal lu dul jooy ci bureau bi defu ko jooy lay def mu ne ko ñaata nga nga paas bi nga jógee seen dëkk ak léegi mu ne ko nangam mu ne ko lii sa paasu dem ak sa paasu del si mi ngi nii lii boo demee ci kër ga boo fekkee dara amu ko léegi nag ñu waajal ko léegi moom léegi demagul mu toog di xaar xam nga atuwal fajri bi foofu la nga daan ci ñoom def nañ ni kër Sëriñ Cheikh laa laa dëkk mais damay wax ci doog a dem naka ma ñëw rek waaye gis ma ne ma yee yow laa tase doon wal fajri mu ni ma waaw mu ni ma bàcc du ma ko ñaanal de ma ni ko ah, mu ni ma déedéet mu ni ma man yow laay ñaan mu ni ma bàcc moom ak bàcc Jóob mu ni ma ak bu mu mën a def ci àddina lu jëf di rëy rëy rëy yàlla faalewul jëf yooyu xam nga dalee lii moom ma defal moo koy yóbbu àjjana mu ni wax mu ni bàcc moom kay waat na ni bàcc moom àjjana lañ xool boobu defin wu rafet te ala la ko def kon li mu bëgg a wax mooy joxe ñam fakku raqabatin la kon bàcc fekk na jaam bu ñu yeew mu yeewi ko ki fekk ki am ay bori luyaas mu fexe ba fayal ko ay borom bu fekkentene ne ne yorul boru yas borom kër la go xamne jamono dab nako bam am bor yu bor yu dul jeex nga fexe ba fay ay borom mo gën alquran mo tudd loolu aw ta'amun fi yawmin zi madhabatin wala nga fekk nit ko xamne wor nako ni këram amul dépense sa nag baax na mais sàrxe juróomi tàndarma sàrxe benn tànk ci miskit baax na mais amul solo de fexe ba xam ki dëkkal ci koñ bi mu wóor na ko ni këram amul lu ñu lekk boo jëndee saako ceeb ñëpp di ko gis dëgg la sax naa baax ak lañ leen soxoon seen seen alaaniya ba tey bu la neexee nga gënd ko saako ceeb te yàlla rek tax. bu la neexee tam nga am loo xam ne mën na cee jënd ñaari saako ceeb wala ñetti saako ceeb nga jox ko ñu ko am dimbali ko waa kër te kenn bañ ko yëg moo xam nu muy def sëriñ bi saaku ceeb ci biir kër dafay dalal xelu borom kër ñëw rek wàcce ndax mbokk benn mbokk def na ma ku baax ku mel saaju Sadio Diallo walaay xaw ma ko sax. mu yónni fa ay gars yi ni ma yow yaay Cheikh Tidiane ma ne waaw mu ni ma xaw ma diw daal moom mu andil saako bu seer bi nag parfumé la de du moo gën a cher mu jox ma ci juróomi saako def ci yeneen yu leer yu leer yooyu ñuy wax waaw def ci yu leer lool wax dëgg yàlla te yàlla xam na ko ni ba fi may wax yow nii xaw ma ah, xam nga lan la ma lan lan la lan la ma lan maanaam lan la ma wan. billahi alladi laa ilaha képp ku doomu aadama yi yaakaar ngay nelaw ngay nelaw guddi ba passé quatre heures xam na ne doo nit ñi bu ñu la yaakaaree di yàq sa nelaw di jaamu yàlla yàlla bu seen yaakaar tas ci yow. Hmm. Hmm. Hmm. na. wallaahi. maa la ko wax kon loolu am na solo giddanti baabu te biddanti gi mu war mooy taalibe bi nit ñi yaakaar xool nit ñi yaakaar man waa ji dafay ñëw ma ne ko non man nag du ma dara man nag xam nga loo xam mooy man pour gëm ma itteelu ma waaw ñëw sax dana dana am bu ñëwee da ngay dañuy xuloog man de xam naa waxuwul sax ndax dafa am benn uh, soxna bu baax bu jógee wul benn wëlëreem bu nekk Thiès boole ma ak moom mu ñëw mu ne ma xam nga diw ci Thiès mu ne ko waaw mu ni ma moo ñu boole de mu ne ko lan mu ni ma damaa bëgg borom kër mu ne ko est-ce que am nga koy ngoro yool mu ni ma waaw ma ne ko wax ma ko mu nettali ma ba pare ma ne ko kooku moom du la takk mu ne ah ma ne ko noonu du la takk mu wax waxam ma ne ko déet du ci ñaan gi kooku aw ma ci yaakaar du ma ci ñaan ma ne ko tee ngaa ñaan yàlla rek mu may la keneen mu ni man kooku laa bëgg ma ne ko kii nag du la takk waaw waaye dégguloo ma ba may dem cinq mille la fa la ma la ma sànni du ma sànni ma ne ko ay jël sa cinq mille mën dem euh, yàlla dagal na ñu dem ba mu yàgg waaye dama boole woon ak moom ni ma soxna ci dina li mu ñëwee da ngeen a ndax li nga ko wax daal neexu ko ma ne ko non dama ko wax dëgg bu mu nanguwul ma ne ko man duma ma seet bi daf koy tere wa man tasaddaqa bil arraf faqad kadhaba bima unzila ala muhammad képp bu dem ci kat mu lay sétal tomb nee len tomb wóorul amu ci benn seet bu wér yonent bi mo gëna mandu ñëpp te yàlla nee ko bu ko def dama doon wax ni seet kii ñu tuddee Afridun Afridun moom la ñu tuddee Siisa yonent yàlla Siisa moo ko jàngal yonent yàlla Idrissa jël nga sama turandoo Cheikhuna Tijaani am na asmaa yoo xam ne ci ci ci Idrissa la ko doon ne moo tax koy tuddee al asmaul idrisiya muy lu jafee jafe ci tarixa bi lu jafee jafee jafe ci tarixa baat yaa nga fa nag yenn saa am na fa baat yoo xam ne dañoo wax ni boo ko waxee gudd fan am na fa baat yoo xam ne dañoo wax ni boo ko waxee dafay wàññi sa feebar yaa mubdi al baraya wa muida baada fanaiha bi qudrati man ci asmaal idrisi ñu ni boo koy jàng cent vingt du tolloog fàmm feebar bu nekk ci yow boo ko bàyyiwul feebar ba dafay arrière di arrière ba dootoo ko yëg te benn rek la ci ak ko jafee liggéey te nag ah xëy na ku ko xamul nag heureusement mais ku ko xam sax doo ci dugg kon tur yooyu Cheikhuna Tijaani di sama turandoo mi ngi ko donne ci maamam Idrisiya ndax dañuy wax ne salaamun ala ali yasin dañ ni Ilias ak Idrisa dañ ciy jaarale ñu ni Ilias mooy Idrisa ñu ni Idrissa ak Ilias bokkuñu mais li ma bëgg a wax mooy yont yàlla Idrissa nee na yàlla euh, Afridoon mële muy Siisa moo ko jàngal ramlu muy tomb ci suuf bi yonent bi ñëwee la xaraam bu dee pettaaw Firawna moo ko doon def Firawna moom moo dàq pettaaw ci àddina te moo tax bi mu sànnee bi Eh, kii pettaaw yi pettaaw yi xamal na ko ni Moussa dana la gaañ li muy topp topp Moussa wóor na ko ni Moussa koy sàmm moo ko sóob ci géej gi benn yet la Moussa yore benn yet kese kese kese sànq Firawna ci biir géej ak armée bi te kat tàkku saani suuf bi jënt bi waaj a so te la Firawna ak yàlla ni musaa dóoral yet wi ci géej gi Moussa dóor yet wi ci géej gi mu xar ndox mu tëb yàlla conseil kii téye ko foofu dootul delluwaat ci kaw suuf mu nekk yoon bi musaa jàllee ak ay gaayam nee naa leen toujours ñaar Moussa dafa jiital gaañi ba ñu àgg mu doog a jaar ci ginnaaw toog ba Moussa agsi Firawna agsi gis yoon wi ñu wét mais ci xam-xamam ak ci ñoram war na ko ni fi mom du yoon ko xel bi ñëw na heureusement jëfandikoo xel jëfëndiko wu xel xol la jëfëndiko xol bi mom mo waxon ni ana rabbukumul a'la man maay seen borom bu kawé ba gaa ñi gëm ni Firawna mo yalla wa legi yalla nu muy ràllale ya, yoon wa ngi ni ñu ne dugg ki kay du yalla ko yalla buy tàppe waaw jom jom jooju moo ko ci biir bi mu duggee ci biir ba xuus la yàlla daal di yabal ngelaw gis nga gis nga bu defee kii bi ngelaw li mu àndal buru bi daf lay hypnotiser ba dootu sa xel sax dootu fa nekk ak sa xol firaw na tiit ba xamatul lu muy def géej gi màbb wuti ko firaw ne oh tey du baax daal ne benn rek ci def damay tuub bo dafa tuub ne laa ilaha illa alladi amana bihi banu israila wa ana min al muslimin amul benn buur bu ñu war a jaamu lu dul buur bii yent yàlla musa di oote bis ni ki tey bokk na ci jullit yi yàlla ni ko lànk naa maa lànk kooku moom yàlla moo jëfandikoo dooleem ni ko duma la nangul sa tuub kon loola dama bëgg wax ne rek bu dee pettaaw ci ñëpp bu dee ramlu dañ koy jàngale ba léegi am nañu koy def ba pettaaw am nañu koy def pettaaw daal naa naa dama ni benn njëriñ ci am ki am ay bronchite ci ci ci ci cœur bi ci poumon bi nga xam yenn saa yi ngay fat yenn saa yi ngay xëx benn njëriñ la fa la fa pettaaw am nga raxas ko ba mu set nga xooj ko ci ndoxu limon bàyyi ko mu seey nga di ko naan boobu foog moom pettaaw daal la mais di ko di ko set yow mbedd ko loola mbokk moomu ma dàqoon mujj na am na jëkkër mais keneen a ko takk du waaja ma ko nag mu ne ma ko ma ne ko noonu ma ne ko gis nga gis góor maa xam ma ko xam nga man góor laa góor bu naru la takk su la nettalee rek yow boo la nettalee li ngay defa góor bi bu fekkee góor gu nite la dafa daan ne ko du la takk jarul ñaar kon li ma bëgg a wax mooy nañu moytu seet dee dafa gaaw dee gaaw na lool lool te bu ñëw ñëpp nangu nañu dee dafay seet lan la ñuy seet waaye keneen seetal gisu la sax man kay moom bu dee seet am na ci ay ay ay façon yu bari même bu téere bi kenn ci xaw a tane mooy Abu Yazid al-Bastami ak euh, Abu Ma'shar al-Falaki te kooku tam dafay à peu près ndax su la defalee dafa lay wax ne soo dundee ñeent fukki at te yow yaay diw du doomu diw diw ans yi boo ko xasee ba am man ko dee bañ a àgg na mais boo xas boo deewul ba am 40 ans dootoo dee mukk te amoo 45 ans man la la téere bi na tey léegi na nga xool ma ni man kat am naa 40 ans mu ne la 25 ans yi ci moom yàlla du la ci rey. léegi nag xëy na boo ci tegoo 45 yi bu tegee mën nga teg ci ñaari at wala ñetti at xëy na dee mën naa am mais boo xasee ba am cinquante ans fokk nga am fokk digg 50 ans moom yow boo doo dee mukk ta amoo 60 ans noonu la téere bi jàngale seet mais dugul ni carrément mën na la wax sax ne yow di sàngam nga judd du fekk laajoo mais boo waxee dana leen carrément di sàngam yooyu yëpp nag taxul mu dara ñu ngi ci téere yi kooku ci wàll ay munu joom la. kon li ma bëgg a wax mooy ñun ñi nga xam ne ñun dañ ñu yaakaar nañuy sonne la guddi nañuy sonne naafila guddi naafila nag heure boobu waxuma nag ni doonte ñaari rakk la bu ko bu ko xeeb yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp kuy def fu mu jullee timis ba pare julli fa juróom-benni rakka yonent bi nee a dee moo ko tee dugg àjjana. dinaa ko waxaat kon. mais bi ñu topp mooy. li mhm. ñu bëgg. Mhm. Euh, bu fekkente ne même ñaari rakka la. yoo xamante ne dañuy dimbali ngir jëm yonent bi rek. yoo xamante ne dañuy wax saar nangam wala aaya nangam. ngeen jàpp ko fii ba diwoon kenn ku ci nekk balaa ngay tëdd rek lu mu gàtt gàtt balaa ngay tëdd defal ñaar rakk yi door hmm, waaw euh, julli gi ñeenti rakkaa la ñeenti rakkaa la rakkaa bu njëkk bi boo ñëwee kàbbar ni allahu akbar am na lan nga wax subhanaka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 xam kontaane nga fatiha ak xuli xuli yaayal kaafiroon nga doog nag subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah akbar dix boo waxee dix daal di rukkoo subhanallah walhamdulillah la ilaha illa allah la ilaha illa allah akbar dix daal di sigg bi nga siggee nga waxaat dix ba nga ne sami allahu liman hamida daal di ci sujjoor bi nga wax ko fukk toogaat wax ko fukk mu lay wax juloosul istiraha ci julli gi bi nga toogee wax nga ko fukk nga sujjootaat wax ko fukk léegi nag su fekkoon ne dafa oo kees kaw kon sujjoot kon fokk toog ay da koy indi te mii nañ ko ci julli loola tax na ñu ne comme salaatu julli tasbiix la léegi da ngay def kees ca kaw ndax jotaay bi mii nañ ko ci julli dootoo ko indi kon su fekkee nag li ma bu ngeen ko déggul ndax gis nga wax ci lu muy bare bare bare bare fexe ba mën lii mooy. fexe ba lii kenn ku ci nekk ni bu ma demee mën naa ko defal sama bopp ci sama biir néeg jàpp ne liñ bëggoon ci daal am nañ ndax kenn ku ci nekk yore nga sa caabi àjjana joo xam ne wóor na leen ni kii su ma ko bàyyiwul directement àjjana laa jëm ba yeneen ko wax léegi nag li ma bëgg xam nga nit ku taree xalaat damaa xam li ma li ma xam ndax am na ku ma doon wax ni ma ma ne ko am naa sañ-sañu man mën naa yeesal sama bopp ci tariixa bi ndax. lii xeeti lijaasa yàlla dogal na am naa ko bàkkuwuma ko dama ko doon wax ko kilifa la ma ni ko ndax xadratul juma taalibi tijaan bi dafa xamul luy xadratul juma gis nga am na ñoo xam ne dégguñu sax wasifa ndax dañ ne bu ñuy wasifa yonent bi dafay ñëw di toog yonent bi toogu fa fi ñu wasifa yonent bi seconde la fay am dem ndegam dana mat seconde daf fay jaar rek dem mais du fa toog de loolu la gaa ñu comprendre moom laa waxoon ma ni leen lu gént yàgg yàgg yàgg gént du ma indil firndeel bi bi may wane ni gént du yàgg mooy tremblement de terre du ma une minute xam nga loolu moo moo koy moo la koy wane léegi nag bu dee géewu wasifa yonent bi dafay jaar rek jàll te fu mu jaar rek mu barkeel bokkul ak jumaa su dee xadaratul jumaa bu ngi ne auzu billahi mina sheytaan rajim yonent bi dafay toog ba ñu xagale ba pare mu doog a dem diir boobu moo tax Seydil Hadj Malick ni bil xadaratayni xabantum ahla tijaani siwaakuma an udun an xuduuri badri adunaani loolu nag li tax ma di ko wax waxuma pour tarixa damaa wax pour ñun jullit yëpp pour wax xadaratul jumaa ki nekk taalibi tijaan di tardé lu ko gën a amul amul ak itam jullit boo xam ne dafay tardé ajjuma te amul ngànt julli ajjuma julliwuloo juma ndax léegi laa koy wax ma ko bu njëkk ba juma yonent bi dafa daan julli ba pare doo ko xutba julli gi moo daan moo daan jiitu xutba léegi nag benn bis mu julli ba pare di xutba gaa ñu dégg borom marchandise yi daal booba loolu ci ci lañu ci lañu ci ci daan dundee bu ñëwee dañuy tëgg na bi ñu ni ndëng ndëng ndëng ndëng rek ñu bàyyi fa yonente bi mu taxaw aha yonente bi nag alquran daal di wàcc nu aaya ba tubeeti إذا نودي للصلاة من من من يوم الجمعة فدعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم وإذا رأوا تجارة أو لحما انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين أها ñu ni nag kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ngay njëkke xutba bi ba pare doo nga def julli dégg nga bu fekkoon te ni eh, julli wuñu woon lu ndënd mi tëgg tëgg ba pare toog di déglu xutba bi ñu ne ak ah, comme xutba rek daal di koy woyofal def moo tax yonent bi léegi jumaa yëpp loolu la ñuy njëkk du xutba mooy njëkk julli doog a ñëw waaw dañ ko dañ ko dañ ko changé benn nodd itam moo amoon ci juma benn nodd ci jamono yonent bi ñëwe ba ci xilaafa Ousmane ibnu Affan moo tax boo demee ci ci téere yi ñu naan laqad ahdasahu al abbasi al amawiyuuna bi giir amawiya ki ci jëkk a nekk xalifa mooy Ousmane ibnu Affan moo ni ko comme benn nodd la yonent bi daan def te boobu islam dafa bees nit ñi dañ koy ñëwal léegi nag nit ñi ñu ngi koy bëgg a miin te gar tardé jumaas dafa garaaw kon léegi nañ koy def ñaari nopp pour may nit ñi sens ndax ñu mën a fekk ju léegi ñu di ko def ñaari nodd di ko def ñaari nodd ba mujj nit ñi di gën di ñëw été nit ñi di gën di bare ba Ousmane ibn Affan jóge fi bi ñëwee ci xalifatu Abbas yoon yi ñoo ne kat xalifa Ousmane defoon na ko ñaari nodd mais nañ ko tax nañ ko def muy ñett ñetti nodd yooyu ku ñu nodd ñetti nodd imaam xutba nga ñëw tàgg jumaa yow kenn mun laa yóbbaale looloo tax ñu def ko mais li ma bëgg a wax rek mooy julli mooy yóbbu nit aljana mënumaa jàng alquran dootul lay soxna ko ci jaxatee ngi ni mokkal na faatee te ku mokkalul faatee du dugg àjjana ndax faatee mooy yore julli te julli yëpp il faut ba am faatiha sax na xujja jaxate ngi nii mokkal na xul huwallaahu ahad xul huwallaahu ahad moo gën ci alxuraan ndax ñetti xul huwallaahu xaw na wecc kaamil kon kay yow boo mënul téere bi ba mu jeex nga ni li gën a foor ci téere bi mën naa ko kon sax na xujja mënumaa jàng alxuraan dootul lay mën naa fàllaxi mën naa naar si dootul lay bu leen bu ci kenn yaakaar kenn mu di la yóbbu àjjana kenn ku ci nekk na nga wóolu sa bopp ni yonent bi ci barke yonent bi lay dugg àjjana ak ci sama ndigal ñaari way jur léegi daal li booy sëriñ yi fi nekk yëpp jox naa leen orma nag ñëpp jox naa leen orma mais nag li wér sama jaamu yàlla duma ko jox benn sëriñ su guddee daal su ma yàlla mayee cawarte danaa def sama salaatu tasbih su fekkee guddi la ñeenti ràkk la ñaar salmal ñaar salmal su fekkee bëccëg la ngay julli salaatu tasbih comme ni ngay julli julli juróom rek xam nga boo gisee ma ma indi saar dafay tax doo juum ndax sa ràkk bu njëkk boo taree faatiha ak xul yaa ayyuhal ràkk ñaareel bi nga tari faatiha ak xul wallaahu ahad nga xam ne kon man am naa ñaar ndax waxoon naa kaafiruuna kon maa ngi ci xul wallaahu kon maa ngi ci sama ñaareelu làkk looloo tax ma ne la taral saar sàngam ngir doo réer ci jullit yi pour loolu rek réer nga abaan nga daal sëlmal andiwaat ñaari rakk tari xul onsi bi bil falaq andiwaat beneen rakk tari xul onsi bi naas ñaata ñeenti rakk. قل يا ايها قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نوي دول نك نون نيه في القران لا تاري لي بو يالا دوغالي غادي كو ديك بس بو جوتو غادي كو ديك يو داف لي وورني سوما دوغي بامل رك damay jakkaro yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu andak ashiratul mubashirin ni teru ma ci sama bamel soko defé nak bo démé ci la gamu boo demee Touba màggali man nga ko da dama sañul na mais dama doon wax ne su ma sañoon mën naa wax la xam sax mën nañ maa duma wala ñu toroxal ma dama doon wax ni réception bi ñuy def ci gàmm dafa xaraam waaw cérémonie daal dafa xaraam ndax ndax li tax Seydil Hadji Malick Ndar la njëkk a gàmmoo mok El Hadj ki wacce wàccee kaam xaaju suuf kii wàccee xaaju kaw bu mam El Hadj nibbi ñibbi sanci ali ngom ko gul paal Seydil Hadji malik ti joge Ndar ndax fi la Si gane jamono ba def bamuy def taysir ba aksi ci rabbun tabaraka aw rabbun tahaddasa aw rabbun taala uluwan rabbi allah lañ ne ko sa soxna sa am na am na doom ju góor kooku mooy sëriñ Babacar si mooy borom bis bi moo gën a jamono ndax ñun ahli ndari wa biha la andari maanaam kon kon sëriñ Babacar fii la jub dëkk bii la juddoo di seydal moo tay siir ñoo maase ci maa ngi wax nag xadratul jumaa boobu ki gëm tarixa tiijaan te di ko yore dafa am juróom-ñaari garaat yoo xam ne dañ koy takkal taalibi tiijaan bu ko waree am ci xadratul jumaa dañ ko koy takkale suñ ko waree takkal garaat ba te ñëwul ñaari yoon ñetti yoon ñëwul garaat boobu moom dootu ko amati ci kaw suuf te xamoo kañ fan la moo tax taalib moo tax tarde xadaratul jumaa ci taalibi tiijaan moom lu garaaw ndax ki ko ki ci am ndigal muy cheikhul tijani borom xam-xam yépp nangu nañu ni bis bu àddinay tukki tàkkusaanu àjjuma lay doon borom xam-xam d'accord rek cheikh tijani ne kon su àjjuma jotatee na ngeen dajé ci jàkka ya di tuddu yalla ba jant di so nga xamni bis bu àddinay tukki dañ leen fekk ngeen may tuddu ngeen di tuddu yalla waaw te kat ñi daan ñi daan def xadara ba faatu keroog bi àddina tukki ñoo ñu def xadara mu fekk leen fa tuyaa boobu dafay continuer ba ci ñoom. waaw xam nga dafa am ku wax ku bind ci asraatu saa asraatu saa. waxuma nag awma droit di critiquer kenn mais yenn saa yi ñu ne ñu ngi ba àddina ngi bëgg a tukki ñu ngi ci catal àddina kenn xamul kañ la àddinay tukki ndax yàlla bi mu bindee jant bi alxuraan dafa ne la ida samsu koo wérat kaw war a nag mooy tànk gaz bi ci jant bi bu jeexul àddina tukkiwul te gaz dañuy wax ne gaas bi ñetti parti la ba yàlla bindee àddina ba fi may wax yow ba ci l'an deux mille lan vingt trois gaz bu xaaj bu jëkk ba xaajagul ba yàlla bindee àddina ba léegi jant bi di alimenté ñetti parti la parti bu njëkk ba xaajagul parti bu njëkk ba xaajagul kon bu parti bu njëkk bi jeexee kañ lay jeex ba mu dugg ci deuxième parti ba troisième kenn xamul kañ la àddina di yasaluunaka an saati ayaana ayaana mursaaha yàlla na yonent bi fii ma anta min zikrihaa ilaa rabbika muntahaa buñ la laajee ci kañ la àddina tukki sa yoon nekku ci nag xamoo ñu boole nag asraatu saa ak mujjug àddina déedéet yonent bi dafa ni balaa àddina tukki da ngeen gis nangam mais waxul ne bu ngeen ko gisee àddina ngi bëgg a tukki da ngeen dégg borom xam yi di ko wax. ak naan yeneen te du ma tudd ñaari junniyaat loolu wérul alquran daal moo ni isa san fukk wi rat bab cher waaw kon isa san fukk wi kaw waram mooy bu demee ba gaas bi jeex tàkk te maa ngi leen di am na benn biddiw bu wax otaari otaari def naa ni bu weer yi moom ngay séen amul lu koy jege moom Autarite moomu sept millions kilomètres te te effacé woo côté bu nekk mooy loolu ñu ne dafa dafa jege weer wi waaw bokkuñu sax bokkul ak weer wi sax planète bu ñu nekk nit wax nañ ni sept millions kilomètres boo ko jegee rek effacé waaw ngir jege gi mu jege jënt bi ndax jant bi kenn xamul nu mu kenn kenn xamul nu mu mel jant bi gaz boobu mooy dawal àddina bi yëpp énergie gaz boobu noonu di jóge ci bi. ci mercure. Hmm. moo koy wàññi bi. waaw bu planète terre bi su fekkonte ni yàlla deful woon ci jant bi ay ay nu waaw ay xuju. gis nga bu jant bi ne bu bu accès ci ñun. daf ñuy rey carrément. xam nga jant bi moo tax ñu gàtt fi mu nekk nii. zahar fil ard fil barri wal bahri bimaa kasabat aydin naas léegi euh, couche de zone yi nga xam ne moo moo moo muur jant bi couche de zone yooyu bu muri koo woon ba dañ mi ngi mel ne yow mu jël sa palaat bu tàng jël sa cuuju ganaar sotti palaat buy buy ak ak ak ak waaw noonu la ñuy mel kon moo tax yàlla baari ak ñun hmm. waaw muy doon ñu ko jàngal comme ni géej gi nekkee waaw ba di wàññiwaale bi lu bari bu loolu amul woon gàcce am ndax géej gi xam nga ñu ngi taxaw fii ci géeju Ndar ma fii la géej gi yam suuf suufu Afrique ci ko soowu jant fii la yam xanaa boo soogoon géeju Ndar bi xanaa nga jël euh, île de mais bu dul loolu yaa nga jëm ba te ma ne ko jinne yi ko doon gas. ñom Sam horus Sam horus moo doon ingénieur bi jité bi jité jiite muy gas ndax ki géej gu ndaw la géej gi ñu jëge ci muxiit yi al muhit al muhit muhit al amerique ak al muhit al muxiitul mutajanib al al al atlantique manam géej yu mag yoyu mo jur géeju ndar gi ci géeju ndaw yi la bok diko Sam horus di gas mo ingénieur bi daf ko gas dama ni ko daf ko gas ba Afrique du Sud. ba mu demee ba Afrique du Sud géej gi dafa tourné waat jaar ca kaw dem ba ca Canada mu wër loolu liggéeyu Samharus la géej gi àddina yëpp noonu la ko Samharus defe ñu jóge ci muhiti kon dëgg-dëgg yàlla rek mooy yàlla moo am kàttan moo jara jaamu moo jara wéetal lu wax ji bare bare bare bare bare bare nañu fexe ba lu ñuy yóbbu àddina ndax dañu bari lu ñuy def bàkkaar lool ñu ñëpp ay tooñkat ku nekk tooñkat ku ñëwoon maanaam ku ma sa tooñ yàlla rek da nga ne da nga nekk déjjër bu sax ci sa ci sa jéem. kon kay da nga di kii kii diw defoo naan du am déjjër <laughs> moo tax yàlla yàlla doon di sutura waaw léegi kon li may li problème bi mooy. léegi nañu lu ba naafila bii ma leen wax ndax naafila mooy tax sopp yenent bi yenent bi sopp la salaatu tasbiix yomb na léegi inna alladina farara alquran déedéet inna salaatu tanha an alfahshaai wa munkar wa lazikrullahi akbar waaw kay kon julli ci boppam mooy nettoyé xol ba xol bi set rek ci wécc yàlla mën a dëkk ci sa biir xol def ci leer kon nag bu la neexoon nga jël subhanallah walhamdulilah ñetti téeméer baax na mais dañoo bëgg nga def ko ay julli rukkoo sujood taaya asalaamaaleykum mu yomb lool boroom xam-xam bi ni yenente bi ni ko boo ko mënee def benn yoon ci sa dund na nga ko def su fekkee nag mënoo koo def bis bu jot benn yoon na ko def semaine bu jot benn yoon weer wu jot benn yoon at mu jot benn yoon wala si giiru dund benn yoon bopp kon képp ko xam ni yaa ngi sax ci naafile gi na nga gëm ci àddina ni lenn moo tee ma dugg àjjana mooy faar kon nag yàlla nañ ko yàlla defal saa yoon mbokk yi li ñu fi wax am na solo lool mais li muy am am am am am solo ngërëmal wayjur yi ñu la seedeel moo ëpp solo moo couleur jotaay bi ngërëmal wayjur yooyu sëriñ bi Jóob wax ngërëm loolu lépp lu ñu la defal ñun yàlla daf ñuy kontaan ci ñun ndax dañoo dem ci koo xam ne yaay wayjuram da koo gërëm ñu di ko defal teraanga kon teraanga bi la yàlla defal ñun dañ koy yàlla daf ñu ci yóbbaale kon yàlla yàlla jàppale ñu ñun ñëpp ñu am ngërëmal way jur suñu mbokki jigéen yi yàlla leen yàlla fay jóge ndakaaru sort soxna soxna ko jëm nii wax dëgg yàlla ko am volonté la ah yal yàlla andi wér rek sama secrétaire itam xam naa ni moom wax dëgg yàlla ndey géen su ko defee ana ko yàlla jàppale ñii daal jël nga saajo jigéenu daay daara fajtal góoru daara fajtal yii jigéen ñeeg góor ñii wóor na yàlla ni bu yonent bi doon xare wallahi danañ buñ ko fekkee danañ dem ndax xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toog Umar ibn al-Khattab war a seet yonent bi yàgg si lool yonent bi recevoir ko ñu toog tuuti rek benn jigéen ñëw rek yonent bi woo ko mu ñëw daa di waxtaan ak moom yeewi ko mu dem Umar ñëw nañ ni ko waaw sang bi kii maa ko fi jiitu yonent bi ko ni xanaa xamoo ni kii ña doon gàddaay dem xabas ca la bokk jigéen ña demoon xabas doon gàddaay yi ca Abu Sufyaan ni nga xam ni mujj na sax tuub mooy mooy papay Maawiya mais doomu Abu Sufyaan ñu ko euh, euh, wax euh, waaw doom bu jigéen bi doom bu jigéen bi dafa ànd jëkkër jëkkëram dem xabash jëkkër ji tuub bi dem nekk catholique waaw ndaw si ni ko man de diine yenent bi bii dee rekk ma ciy génne su ko ummu habiba ummu habiba jëkkër ji moom ba mu demee ba ba Éthiopie dafa mujj nekk catholique ndaw si ni ko yaa ko wéete de man de maa nga ci lislaam ba kooku yonent bi mujj dina ko takk ndax bi ñuy layal lan moo tax yonent bi am juróom-ñeenti soxna soxna bu nekk am na lu tax mu takk ko kooku nag moom Ummu Habiba moomu di doomu Abu Sufyaan yonent bi mujj na ko takk ndax comme jëkkëram noonu la ko def mu am lu ko metti lool waaw bu dee Ummu Salamata Ummu Salamata jëkkëram dafa génn àddina muy jooy guddeeg bëccëg ñew ci yonent bi mu ne ko man de sang bi sama jëkkër gi lay joy rek yonent bi ni ko waaw te nga ñaan yàlla mu may la ku ko gën mu ne ko loolu moom mun la nekk ku gën sama jëkkër moom munutu la nekk ah yonent bi ni ko waaw te ngay ñaan inna lil ina ah? inna ina inna inna lillahi wa ina ilayhi rajiun allahumma ij'al li fawqa ma yadhkur fàtte naa ko sax léegi soo ko maanaam ma fàttali ko bala maa pare mu ne ko soo ko dee wax yàlla mën na laa may ku sa jëkkër bi ñu di ko wax ba xar yonent bi takk ko ah sang bi nag am naa ku gën sama ah, na ci jigéen ñi amul <laughs> waaw su ko defee kon loolu ñuy wane ni. ñi demoon xabash dañoo am ñeent yonent bi daf leen a foog gis ngeen yéen ñii wallahi bu ñu bokke woon ba islam ñii dem xabash aw ma garanti ni góor ñi ak jigéen ñi danañ dem xabash kon yàlla na yàlla fay rek wante nag quartier bii ni muy baa Sénégal ñoom itam ñooy ñoom moom ñooy moom ñooy waa muhaajir baa Sénégal dëkk ak bë dëkk ak Mouhamadou Diallo bokk ak moom quartier bi ni ko loo nekk ñanga ca foo ñu ko ñu wuy na waaye dëgg-dëgg ma ni quartier bi yéen a am ngor yal na yàlla fay leen yàlla def fi xéewal ak sutura def fi ndam ak barki hmm. ma kon ba Sénégal yal na yàlla def ko muy appartement ci Firdaws su ko defee ndax yonent bi nee na su ngeen di ñaan yàlla di leen ko ñaan ngeen dëkk Firdaws ndax firdaws moo dàq ci àjjana yi ànd ak ashratul mubashirina bil janna fukk yi nga xam ne yonent bi ni ñii moom àddina lañ jëm yal na ci yàlla boole daara fajtal ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi boole ci waa baa Sénégal ak waa Ndar waaw ndax kon nag eex eh ba yàlla jàppale sutura wax dëgg yàlla li man daal sama wax bi li muy bari bari bari bari benn problème la laa am salaatu tasbih bii na ko ñëpp xam ku ko xamul na ko laaj bañ wax la ko nga xam ko lu mu metti métti métti semaine bu jot nga def ko benn yoon wala wu nekk benn yoon nga garanti sa àjjana mu wóor ne dee mooma tee dugg àjjana ak ni àjjana neex waaw hmm? ah, lu mu demee fi daaw daaw mooy dangay ngay njot mën nañ laa nangul mën nañ laa bañ a nangul mooy fiddaaw xam nga al fiddaaw yoon yi ñooy commando léegi nag fiddaaw moom mën ngaa def xul walaaw ahad téeméer ak fukk ak ñeent muy 114 wala bismillahi rahmaani rahim 114 wala basmala kooku moom fiddaaw la mais bokkul ak lii nag naafile gi dafa jóge ci làmmiñ yonente sallallahu alayhi wax ko bàyyi maataar am na téere yoo xam ne dañ ko bëggoon a kontal fiqu sunna bu Seydi Saare gëmul tariqa andi na ko dégg nga ah, minhajul muslim borom madinatul munawwara dëkk gëmul tariqa andi na ko ibnu miyaara moom itam andi na ko ci saraxaam Cheikh Ahmad Tidiane dégg ak yeneen i téere yoo xam ne sax gëmuñu tariqa andi nañu ko pour moom naafila bi naafila bu wér mu kese pour ñëw wax naa fi léegi rek wax ñu sax ñu di ko def ndax man ko mu wóor ne man bu ma demee sama kër danaa fexee def naa fi léegi bis bu jot ma def ko su ma ko mënul def bu jot semaine bu jot ma def ko su ma ko mënul def semaine bu jot weeru jot ma def ko mooy lu wér te mooy keroog ya xaraat tey ko fa def mu wóor ne maanaam boo amee soixante-dix ans mu wóor ne man keroog ba ma juddoo ba ñu commencé ma wutal bàkkaar lépp dañ ne te li may tëjee bépp doomu aadama ci sa biiru ndey loo fi def boo demee la ko tegal lu jiitu ñeenti weer yi bokkul mais boo amee ñeenti ndax ci la ruux gi ñëw moo tax jigéen bu wanee lor rek bu ruux bi dugg seen dana dégg doom ji tëb tëb tëb boobu nag waratu la dal ba ba muy judd looloo tax nit ki bu faatoo bàyyi jabaram mu ëmb bu jabar gi nekkul naa fekk danañ xam ndax war naa doon baayam wala warul doon baayam dañ koy wax ni waaw kañ nga gëj dégg doom di yëngutu nga ni ko di man di dëgg-dëgg lu jiitu papaam di faatu yëguma benn yoon yëngutu fekk doom ji dafa jut faatu mu ne ah lu jiitu papaam di faatu yëguma benn yoon yëngutu kon mën nañu mën nañu xayma ni kon xale bi moo njëkk a faatu papam kon du ko doon su fekkee nee nga ah wax dëgg yàlla di di mu di papam gaañu dafa daan yëngatu bu ma tiir sax daf lay dafa bëgg a génn kon kooku bu juddoo bu faatoo dana doon bàyyam kon bàyyam a ko njëkk faatu mais yëpp nag dootuñ ci sukkandiku fiq fuqaha yi daal loolu lépp ay ay détails la ndax nit ñett mën nañoo mën nañoo jub mën nañoo bañ a jub te bu dee borom alal dafay fexe pour xale bi doon ngir mu ngir cëram gën a yokk léegi daal nii di sharia wax xale bi daal bu juddoo jooyul te fekk papaam faatu na bu jooyul du doon baayam bu jooyul waaw bu jooyul rek du du doon baayam ndax xale bu judd itam te jooyul mën na mën na bañ a dee te jooyul loolu musiba la moo tax dañ koy dóor sax ñu koy rew ni dañ koy dóor pour mu jooy xam kii moom waroon ne mi ngi dund dafa jooy da nga sa xat pour mu jooy ñàkk jooy gi baaxul dafa am beneen kaa bu muy indi bii nag moom dafa judd ñu xam ni kii dee na kon kooku moom dootul doon nu bàyyi mais ba mu juddoo ni uwee daal di faatu dana doon waaw bu nee uwee rek kon dana doon léegi nag kon yow li nga bëgg a wax mooy keroog ba nga juddoo. mbollem lo xamne def nga ko ba nga amé ñent weer ci sa biiru yaay li ko appareil li mi koy jël bo démé yow ma xiyam écran géant la ñuy def écran bu mag bi ak ak bi yëpp tay bu ñé nee du Gaye ay ñëpp téw non la ilaha illallah dé léegi du leen lo def at bi wa xadi nak yalla yàlla mu dal ci gàcce ak àllaaxira keroog yow mu tuura sama yu sama lahu min xóotin wala nasirin kenn ku ci nekk ba nga amee ñeenti weer ci sa biiru ndey loo ma dañ koy jàkkaarloo mais boo naafilaa naafila bi dañ koy effacé dañ koy blanco waaw dañ koy raxas boo bu fekkee def nga ko maanaam julli nga julli gi caay caay boo mos a def ci àddina dafay effacé wu kenn du ko gis. su loolu wax dëgg yàlla mu ni. duur bi la kii laa la laaj nujum ndax dafa araam wala déet jàng ko waaw maîtriser ko parce que dama dégg ñu ne ku dul sëriñ mënoo nekk sëriñ tant que maîtriser woo ko réellement waaw xam nga xaraam dafa am ay degré nit kay ñëw rek ni la xaraam ndax Seydil Hadji Malick daf cee tontu ndax dañu ne taallamu min al ilmi min ilmi doom xul xaraam ñu ne jàng xam-xamu ilmu nujuum bul wax ni xaraam na mën ngaa wax ni mën na xaraam ndax xam nga toujours arab dafa am waxit boo ñëwee ni xaraam na rek te yonent bi dafa ni al ilmu daalatul muslim fa aynama wajadahu axiduhu yonent bi nee na xam-xam alalu jullit la fu ngeen ko fekk na ngeen ko jël kon xam-xamu ilmu nujuum mën na araam mais doo wax ni araam ndax Seydil Hadji Malick jàng na jàngal na ko alxaaji xaaji Touré waaw li ñuy bañ mooy dañuy bañ mu génnee la ci tawxiid ndax dafa xaw a ne tey boo xoolee vidéo bi nga ne nangam dana am te am na vidéo yu lu dem kenn gisu leen vidéo da ngay taw ba mujj nga gis vidéo boo xam ne tey nga ko mës a gis kon boo ci wekkoo mën na laa juumloo su ko defee nag maanaam xaraam mot la pour ñu bindal la ci bàkkaar taxul mu ne mën nga cee def lu ndax dafa yomb mu ngi mel ne rek nga ne alal xaraam na alal alal xaraamu na mais borom alal bi bu bëggee moo yàlla te daf ko yomb xoolal jigéen ji nga xam ne jëkkëram dafa ko fi bàyyi mu jaaxle jaaxle jaaxle fu mu bunt bu mu fëgg rek mu mu tëj mu ñëw ci benn boroom alal bi te biis dugg ci xol ci xol waa ndaw si woon ko ginnaaw rek xel mi nekk mu ne ko ah wax dëgg yàlla de soo ñëwee tëdd ak man danaa la jox dundu at moom kay yow ay lépp dootoo ko fi ndaw si ne ko man nag mooy yàlla dee ma ko gënal waa ji ne kon demal ne ko ne ko sonn ko ndaw si wër wër wër wër jaaxle wër wër wër jaaxle ñëw xool doom yi ñuy jooy yaay damaa xiif nangam ndaw si mun la tëdd mu ne teemaa dem rek nangu ndax sama njaboot bi mu àgg daal di wéet ni waaja nangu na waaja sunneeku ndaw si sunneeku ba ni ko ndeyam jure woon waaja xel mi dem ci yàlla mu ne ko solwaatal mu solwaat mu ne ko baal naa la ngir jëm yàlla lépp loo bëgg danaa la ko defal mag ñi wax nañ ni yàlla yemul ci jéggal ko moom nee na kooku fuñ ko suul ba mu am 40 ans kuñ suul yàlla jéggal moom waaye yow njéggal yemul ci moom de yàlla jéggal na ko ba jéggal neen sa nararo kon yal nañu yàlla jàppale ci barke a bi ah kontaan nañ ci yéen ndax Sadio moom bu kontaanee rek ñëpp kontaan te bu kontaanee yàlla kontaan kon nag Sadio. yëgal ni kontaan nañu yàlla yàlla kontaan te yàlla may la wér eh, sëriñ bi Jóob Birama mooy mooy mooy rek Birama daal yow ñàkk xam musiba